salaamaaleykum àdduna wërngal këpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkku bu baax ngeen dinu ñaanal di am mbégte ak kontaante ci ànd ba ngeen ànd ak ñun ci Tektal TV euh, di wax ne ñi ngi nekk ci bés bu tedd bés bu màgg bésu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi nga xam nag euh, moo gën ñëpp gënal képp ku bëgg lu baax nga xam tooñul kenn te jëriñ na ñëpp bésam la nekk ñu koy màggal fu ne ci àddina bi ñu nekk fii ci Tiwaawan ci camp Sapeur ci wetu quartier Cheikh aw Balla ñu nekk fii ak Serigne Mor di sëñ Ndakaaru euh, boroom Italie di ki nga xam ne que moo yor euh, ànd euh, defar ànd def te yàlla tax moom nga xam ne que ñu ngi fii ci alxalifa nga gis ci set yi ñu def bernde toppatoo jaamu yàlla yi li naan jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi bis bi foo waay mën a jóge ñëw di nga xewlu te doo fay dara di nga naan te doo fay dara di nga lekk lu set di nga naan lu set te doo fay dara jàmm am fi jàng alxuraan euh, jàng addis lépp lu baax daal nekk fi euh, sëñ Ndakaaru yow nga doon nit boo xam ne sa dund dafa am njëriñ euh, ngay dox ci social tey nag ngeen ñoo fekk la fii ci Tiwaawan ci bis bu màgg bi bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ren tamit doon nga xam ne que ci la ñuy màggal atu Alaaji Malick bi mu fi jógee ak léegi te màgg gàmm tamit am ñaari at yoo xam ne que Tiwaawan nit ñi dañ na moon gàmm yooyu yëpp lan nga ci wax ci bis bi nga xam ne que ñëpp ñëw nañ Tivaouane fees dell euh, nit ñi euh, taalibe seex daal ñëpp a ngi fi daal macha waaw Cheikh euh, ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonante bi di sant nag képp koo xam ne jullit nga. képp koo xam ne yaa ngi wax asadoon la ilaha illallah asadoon muhammadu rasulullah ñu ngi lay sant. di la sant yawit di ñaanal télé bi muy Tektal TV sun borom def ko muy télé yi gën a mag ci télé yi. ñi ko ànd ak yow muy cameraman mbeeg ak ñi ànd ak yow yëpp mm. yàlla defal leen wér ak sutura ak kaaraange ak mucc ak mucc le waaye kontaan nañu rek xam nga bisub alaaji Malick moom ak bisu mm. yonent bi mm. bisu Serigne Babacar Sy lu ci waaye def rek danga koy xep waaw liñ ci def ndax boo xoolee ñi nga xamee ne ay tijaan sax mhm. man yëkkati neen alal ju bari di ma ko jox ndax gëléem gi mhm. am na koo xam ne yónnee na ma gëléem ma nga nekk ca Souvidane mhm. ànd ak waa groupe sopp sëñ Ndakaaru ànd ak grande dame yi sëñ Ndakaaru yi yónnee ma gëléem am na koo xam ne mi ngi fii ci biir pël bu rafet moom it yónnee ma nag ne ma nagu ndawal gi maa koy def ñaari nag la ma yónnee ñeneen ni am na koo xamee ni nii moom it ma nga dëkk ca Kébémer yónnee ma ay ay bëy sama mbokk yi tamit ginaar yi macha allah ba ko xoolee. mënuñu xar yëpp mënuñu ko takk daal. Mm. di ko sant am na ci comme maa ngi la ko expliqué am na koo xam ne ma nga nekk ca Nord Foire. Mm. daf ma yónnee vingt ma damaa màggale woon sama doom eh, yàlla dogal mu wàcc liggéey. moo tax ñëwuma waaye damaa bëgg 25 nga dugal ma ko ci guddi yonent bi te nga ñaanal sama doom jooju kon Cheikh ñi ngi sant ñëpp di kontaan mm. di doon taalibe rek nag comme ñëpp rek comme ni ko gars yi defee rek eh, borom baax nga te da ngay dox ci lu baax. Euh, am na ñoo xam ne que au lieu que ñuy jógee fenn. dem ba kaw Kaolack ci pertement. wala ñëw ba Tivaouane ci pertement. guddi gàmm boo amoon dog yoo doon jox nit. ne ko bis bii wala fu gàmm dee kéet jegeti nit ki na def lii dina ko yokk aw yiw loo mën a wax ci kaw ñu dégg. waaw loolu Cheikh li nga xamee ne mag ñi daanañ ko def. bu ñu duggee weeru gàmm wi. ndax maanaam tey gëléem gi nga xamee ni ki ma ko jox ab xaadir la. ànd ak grande dame yi sëñ Ndakaaru yi groupe sëñ ma gëlëm gi gëlëm gi bi ma ko xoolee ci biir gëlëm gi damaa gis allahu ci biir mm. ci biir gëlëm gi mm. ma gis gisaat euh, bu ma xoolee ci tànk kanam yi ma gis fa allahu ma gis ca tànk ginnaaw ko allahu mu sëkk doon allahu mm. ma gis ca limu 313 Mouhamed gisaat ca Mouhamed ci biir gëléem googu tey bëgg naa incha allahu bu ci yàlla àndee kartanam ci kanam tuuti damay ci faj bët waaw maanaam li faj léegi ci sensé sensé léegi ci sensé doo doo hmm. ci gëléem gi laa koy amee waaw ki ay bëtam day métti ma faj ko ci gëléem gi hmm. li ne ci bëti tooke bi nekk ma génn ko nga koy gis jàkkaarloog moom hmm. waaw te duma demee maa ngi koy amee ci barke Muhammad Rasulullah sallallahu ah, loolu dinaa koy def kon Euh, ma yonente bi foo ko takk daal paase na ko waaw foo ko takk paase na ko mm. ndax bool bi nga xamee ni lekk nga ci bi ci bi ñu ci lekkee nii mm. bool boobu maanaam boo fi sëloo boo ci sël mooy bët dut la métti bët dut waaw mm. boo ci yoree jàngoro te boo ci sangoo mu mu jàngoro jooju yàlla saafara ko ci guddi gàmm bool yëpp wala bool yëpp bool bi nga lekkee rek guddi gàmm ak fu ñu ko mën di lekke ci bool bi kon secret feeñ na dégg ngeen ko mu ne guddi gàmm bëccëgu gàmm nag bëccëgu gàmm dafa gën a tee garaaw maanaam tey jii am na ñoo xam ne tey maanaam ñi ngi euh, am ay jafe-jafe maanaam bu ñu tëddee seen i nelaw du doy am na ci ñoo xam ne bu ñu tëddee li ñuy gént day bari te li ñuy gént lépp yaa ngi koy dindee ci bëccëgu gàmm nga koy dindee waaw yaa yàlla jaarale ko nag ci gëléem gi mm-hmm. ak góor ñi nga xamee sax dañoo tële ci gëléem gi yàpp gëléem yi ñi am feebar fi ne ci lekk gëléem gi mm-hmm. seen seen jàngoro jooju day day faju day faju mais léegi kon dafa mel ne léegi lekk kudd ak lekk loxo ban moo ci gën lekk mbooloo ak ñu ber la ban moo ci gën ci bisu gàmm kon non lekk bokk moo gën lekk loxo moo gën mag ñi dañ daan lekk loxo di raxasoo seen ñaari loxo loxo duutu la métti hmm. maanaam foofu gis koy lekk loxoom di raxas ñaari loxoom hmm. loxo duutu ko métti ah, bàyyi mas bàyyi loxo lay lekk am sa voilà léegi booy lekk loxo bi tamit ñam yi nga xamee ne mooy tuuru ci suuf hmm. nga koy for ci ñam di ko lekk maanaam doo doo yara dal doo yara dal da ngeen ko ay secret ngi feeñ de ah. dama koy jël tegtal ah bon ah, doo yara dal maanaam boo di lekk lekk tuuru doo yara dal te loo ñam mu fekk sa biir mu rees. Mm. maanaam bu fekkee tooke ci sa biir day day day fees. day day day day day day maanaam du du la lor daal. du même boo lekkee posen du la lor. macha allah kon ngeen xel bu baax a baax ay kudd mi ngi ñu lor de kon wala. waaw kudd baaxul kudd bari na yoo xam ne fi ne lekk yu bari nii tey dafay indi jafe-jafe yoo xam ne nii ndax boo xoolee tey garab yi ñu xamee ni moom lañu daan jëfandikoo dafa am garab yoo xam nag dañuy lor. te jaaykati garab yi ñoo lore. Mm-hmm. ndax garab saab-saab gi ñu jàkkaarloo tey boo ko xoolee. maanaam tey boo amee euh, warnen te amoo loo jënd warnaas soo ci euh, jëlee tucc tuccal ki bi laal ci fii ci kaw laal fii warnen bi du fanaan day wér waaw doomam bi tension boo ko jëlee xooli ko am ci ñetti doom naan ko mhm. naan ko bu sa nopp dee riir day bàyyi waaw yor naa ci garab goo xam ne nag mhm. man maa ci man ci Sénégal muy garab maa ci man ci senegal muy garabu soon macha allah kon gis ko dama koy jël tegtal moom nag bu ma ko jëlee tegtal surprise la dina leen joxe mi ngi ci Italie fi nga nekk ci Italie fan la ba bari. maa ngi nekk benn dëkk bu ñaan La Spezia boo ñëwee Milan ngay wàcc. ñëw Genoa ñëw La Spezia. dëkk la boo xamee ni île la. tubaab yi nag xam nañ ma. xam nañ ma waaw tubaab yi moom xam nañ dañ may yóbbu dañ ba ci hôpital yi. Mm-hmm. waaw tubaab dina ñëw fii tubaabu daaw bi may ñëw fii tubaabu ma daggal bee. waaw ni ma sama yaay daa feebar te nee nañ ma day dee. Mm. ma xool ko ni ko du dee mu ne ma fukki fan ak juróom lañ ko may am na benn booy Touba gi la dëkk Xaadim mi ngi fii nag actuellement di moom laa ànd pour seede ak moom ñu ñëw jël si ma Touba bi ma daggal bi yóbbu ma hmm. ba ñuy demee maa ngi fekk maire bi ñu teg ko ci kii muy nelaw bi ma ñëwee ànd ak doom ji docteur bi ñaar ak bi ma duggee maire bi dane xifeet ni ko kii kan la hmm. seet bi ne ko kii mooy Serigne Ndakaaru dafa ñëw prégaré prégaré bu ko italien waxee mooy damay julli pour ñaan pour nga wér hmm. moom mu mu ne mu ne mu jooy mu ne bi nelaw na maanaam ñaari weer ak fukki fan ak juróom mu ne ba nga ñëwee la yeewu maire bi ni li ko jaaxal mooy lan moo ko miti bi muy man dara moom xawma ma lim ñim daal defal gisatu leen léegi musuma defal dara man bi mu amee jafe-jafe leen ma ñëw maire bi kere bi mu ñëw sama jabar ji nekk ci kii bi ma namaa seede wali su yére la ma indil a xaalis bu bari ak téléphone macha allah waaw ah, ma ngay dund kon daal grand euh, sëñ Dakar kon lu indi sëñ Dakar tur bi waaw li indi sëñ Dakar Momar mar Diop lañ ma tuddee grand sëriñ de Dakar hmm. ndax soo ñëwee réew ma boo nee sëñ Ndakaaru dëkk boo wàcc boo dëkkee mën nañ laa dalal ci Italie ci Italie dëkk boo dugg mm. ndax bu dee kuy wut liggéey la boo ñëwee dinaa ànd ak yow ba nga am liggéey booy wuti kayit ma ànd ak yow ba nga ami kayit mm. boo jaaxlee tamit ma taxaw ci ba nga ami kayit mm. boo ndewee nag sa kayit dëgër ñu noonu bu la waree tëj tam muy noonu ndax dayu gëlëm boo ko sangoo doo dugg kaso ah gëlëm ah puubu sangoo doo dugg kaso doo dugg kaso gëlëm xaju ci ci néeg soo defee kon kon tey ci gàttal. ba avant ñuy rey gëléem gi fi mu nafara. ku for nafara lépp jël naa ko. jël lépp fi ne bu ñu àndante man la mi ngi nii. Hmm. nafara baa ngi nii. ndudam mi ndudam mi mooy yaxu boos gi. waaw soo ko daggee boole ko juróom-ñetti fukki faatiya. waaw def ko cim ndox sangoo ko. Hmm. kenn mënu laa tee yokk. ñeme naa ko boo ko sangoo fi ne ren. bu hmm. déwénee bu nu gisee ga jox ma ñaari loxo. barke grâce docteur. kii dama koy yóbbu dakaar jël ko émission tegtal spéciale. tegtal boo xam ne que nag sa numéro moom nu muy demee bu ñu ko joxee ak nit numéro neexee nga jël ko ndax numéro bi boo xoolee man xam nañ ma Sénégal waaw kilifa yi xam nañ ma hmm. c'est que nag damaa génnul waaye li may def tam dama koy def te yàlla tax mooy comme loolu nga wax ne ànd def te yàlla kon dëccal joxe numéro bi maanaam wutuma xaalis hmm. boo bu dee Sénégal fii maa ngi fi fii ak 15 jours waaye ñaa ngay jël carte bi nga xam ko la bëgg jot waaw carte bi double zéro 39 nga def waaw double 0 39 boo nekkee Sénégal. 329 04 03 249. boo ko mhm. enregistré am na whatsapp bi. Mhm. boo ko jëlee boo ko whatsappee boo ma wakaale rek dinaa la tontu ndax dinaa la faj te doo ma gis. man mhm. bari na ñu may faj doo ma gis ki ma jox gëléem gi ñi ma ko jox xamuñu ma mosuñu maa gis. te boo demee fii am na ñoo xam tey lañ ma gis. man man nag li may neex ci moom. mooy man dama waye di kàccoor tekkiwu ma dara mais moom baaxaayam waral mu jël kaamil uniquement. wàcceel ma ko pour ñaanal ma jëlaat beneen kaamil wàcceel ko Sidi Lamine Niass ak kanaat Sidi Lamine ak Thione Seck ak Thione Seck dama xam ne su wax naa la ko mhm. loolu maanaam am na ay live yu may def ci TikTok bi annoncé naa ko fa yàgg na ndax soo ko siiwelee dañuy yaakaar ni tey Wally Seck da ngaa bëgg Wally Seck saa di ko te dene xale war naa ko ma Thione Seck dund naa ba dent xaw ma ko te maa ngi tedd kon waaye dafa dafa coon dafa woy woy boo xamee ni woy boobu dafa ma jàpp bo fi ma lay wax ni ñëwaatal ca woy ba nu mu demee dafa ni bala ngaa xam ni sa baay nee nga màgg xàmmee njaboot gi wër wër la añ reer ndékki mu ko ci sa kaw mm. mu ne bala nga xam ni sa baay sonnee mm. añ reer ndékki mu ko ci sa kaw bi ma amee njaboot nag xam la ma sama baay daan la sama baay daan daj ci xam mm. ba yaay mu ne boo jàngiwul métier adduna da lay raay boo boo dee xale jàngiwoo métier adduna da lay loolu 91 ci laa dem jàngi métier sama yaay ne ma toogal bul dem jàngi métier ndax say mag tukki la na ma ne ko noonu bëgguma bàyyil ma dem wax Cheikh Bara Ndiaye ba ñëwaat nga sa yaay wax nga bañ waaw sama yaay wax ma bañ sama yaay dama ne bul dem hmm. toogal sa mag dina la yóbbu ma ne ko kii ay doomam duñ ma yor booba coon sekk laa déglu coon hmm. ni boo jàngiwul métier jàngiwoo adduna da lay raay boo dee xale hmm. amagoo màggagoo way woowu moo ma tax coon sekk ma wàccal ko kaamil Sidy Lamine Niass li tax nga wàcceel ko ma wàcceel ko kaamil man damay dawalal Ibrahima Diop ma Marème grand sëriñ de Dakar ñuy xaccoo maanaam xaccoo Dakar xam nga ñaari sëriñ Dakar yi xam nga ko. waaw am na ñoo xam ne xam na ni mu demee waaye naar fekk tax na kenn du wax dara. wala intérêt tax na kenn du wax dara man xam naa Dakar ni mu demee ne fukki penc yeeg ñaar lébu gënuma koo xam man. ndax dañ daan wax may dégg sama nopp bii. dañ daan wax may dégg te nopp amul kubéer. mais ba ñu def ñu fal Baye Dame Diène sama rajo wal wal fajri man maa ko jàpp moom laa daan jàpp man maa leen ko daan jàppal sama oto ba ma ko jàppee ñu ni Maodo si la Baye Dame Diène bu Maodo gaañoo ñuy dem dëjëm ñu ne Maodo eh, Basirou Diagne fal na Baye Dame Diène grande mosquée paa yi ni nañ tourné egguñu keroog dëjëm Maodo ñu tourné bi ñu tourné ñu ne nañ dem sanc ba wut imam ñu dem sanc ba pour former imam ba ñu former imam defar eh, lettre ba pour war koo joxe am na benn site boo xamee nii moom lañ ko waroon nañ jox bañ ko ko joxe mu ni du ko jàllale trois cent cinquante mil lañ fa ci site mu ni du ko du ko jàllale bañ ko indee ci site lemen site lemen ko jàllale jàllale ko mu ko jàllale ak fitu mu aman ak njàmbaar ga aman ak jum ga mu aman ak lislaam ga mu aman moo tax ma jàngal ko kamil masha Allah kon Cheikh Niass nga bàyyi xel bu baax a baax a baax loolu euh, kii jàngal na Sidi Lamine Niass nga xam liggéeyal na Sénégal mu jàngal ko Kamil ah. léegi nag mu des man mu doyee di bii Euh, Cheikh Diop Cheikh Talif nag ban ban maqaama la am nag lu ma def ba nga may defal kaamil nag man nag loolu tax. non Cheikh li tax ma lay doxal euh, ma wàcce la kaamil. waaw man ñi ma xam social ci lay dox. Hmm. maanaam ñu ma xam ku ma xam ne social laa mus si dox. Hmm. ndax dama mus a dem euh, ci jamono ma doon xale bu ndaw am fukki at ak ñett. Hmm. sama yaay yónni ma ci genn góor goo xam mi ngi fii dëkk bi soriwul sanc ndong. ne ma demal mu lebal la fukki kiloy ceeb. kooku dama ko wax benn booy ne ma may naa la ci nag ca kër Mor Ndiaye ca Louga mu ne ma may naa la ci nag nag am naa fa nag fi ne ci histoire boobu ndax dama ñëw sama yaay yónni ma ne demal ci baay Mbaw mu lebal la fukki kiloy ceeb ndax kër gi dara new fi ma dem ci Baye Mbaw Baye Mbaw fekkoo lu mat fukki nit daal wala ñaar fukki nit ñu toog ci garab nii garabu penc yi ñu toog ci datt yi mm. mu ne sama yaay ne ma boo demee da koy déy wax ko ko ma ñëw déy ko ko góor gi wax ca kaw mm. daal ne sa yaay na fi fukki kiloy ceeb ko ba pare buggaat ba bor am rak waaw ma ma ma rus fekk maa ngi yor mbaam oh, mbaam mi maa ko yor maa ko yeewlu ma 30 mètres ma dem mbaam mi ni du ma dem ma war mbaam mi mbaam mi daaneel ma ma war te mbaam mi maa ko yor fukki maanaam bi ma a bu jafe-jafe yegg seen doonal ma waraat ko mbaam mi daaneel ma hmm. ma ne nag jamono yi ma toog ni ci laa xam la tax mbaam mi daaneel ma hmm. ndax mbaam mi day ni du ma dem kër ga dara néew fa hmm. mu daaneel ma ñaari yoon góor gi ne xëyu ma ma ne ko ñun ma kaay wuyu góor mu jox ma fukki kilo ceeb may ma genn wàllu mburu ma ne ko mbaam mi kon maa ngi soog xam fii may waxee yow nii maa ngi soog a xam mbaam mi la taxal mu dem booy bi ne ma am naa histoire bu mel noonu aw fa sama def mbëkk ma sama bopp te sama baay doon lépp da doon lànk hmm. sëñ may naa la ci nag ci vidéo muy muudu bay Espagne maa ngi sant ñoom waa diaspora bi waaw mais man ma xama bi nga am ba nga ma ñàkkal ma kaamil lu mu liggéey la tax ma lay ma lay wàccal kaamil def naa la ñaari kaamil hmm, ñaar la ñaar la ah. bële na daaw la woon at mu ne dama koy wàccal dama ah, ko warlu ndax maanaam li tax ma lay wàcce kaamil hmm. mooy dama lay topp na ngay gis ngay dimbali néew doole yi xam nga lan mooy dimbali noonu doole. Mm. fekk ku amul dara. nga mm. jàppale ko fekk koo xam ne nga ngi feebar as gor léegi mënut a wax boppam gor yëpp dañoo lafu. maanaam gor yëpp làq nañu léegi. Mm. léegi amul benn gor bu génn ndax as gor bëggul ku ko jànne. as gor mënut a wax a a leb da ngay gis ko solo ba rafet nga gis ko ni te këram bàyyi dara mu xëy di dox. bëkk dem benn paa ñëw na fi rek. dafa ñëw yor sareetu mbaam. ñu jël la ko mbalit mi muy waxaale ak ndaw si sept mille euh, sept cent mu ne mille franc sept cent mu ne mille franc euh, ndaw si xaw a dëgër mu ndaw si dama yor ñaar ab liir bu ndaw. di ko jëndal meew. ma nga ca kër ga ba ma fay jógee bàyyi ma fa dara meew bi moom waxu may waxam. añ bi moom waxu may waxam. ma ne naa jéem a kari kari te na naa taxaw sax wax ne sama jabar aw ma dara. maa ngi ko bàyyi war ko wutal meew ndax yaaj ji bëriwul soow. xale bi yëkkati. kii bi 1000 euh, francs yi hmm. daal ko jox loolu la koy jox ma ne góor gi may naa la saakub ceeb heure boo jaaxle ñëwal fii ah man daal li ma lay wax mooy lenn dina ànd ak équipe bu Tektal TV hmm. social bi ngay def hmm. fu mu di doon ci àddina ba ca Italie soit dinañ def documentaire ci yow wane lu baax lépp looy def yaatal ko te dina dawal fajjari dinañ ko kii yëpp ndax lan dafa am nit yoo xam ne ka danoo baax ci dëkk bi ndax koo xam ne que bu duggee Italie ku amul kayit nga dimbali ko ku amul ku feebar nga dimbali ko kun tëj kaso nga dimbali ko ci xam-xamit nga dimbale ci yori secret kon yow maanaam sa rôle ci société bi dafa laaj mu fees. dinaa la may genn garab ci poften gee. boo demee am na fii sama kër ma nga ne ñaar la. Hmm. poften bu am boo nekk ci xorondoom. Hmm. nga ñëw dagg jël ay xal jënde jënde ko reen bi. Hmm. dagg reen bi. nga weer ko ba moo nga dëbb ko ba mokk jël soow yi compati def ca boo koy naanee yow lekk gu bon gu nekk ci sa yaram koy génne doo ko wa da nga koy wàcc doo doo doo ko kii. moom poften mii. waaw boo demee ci seen bi nag mu laaj la 500000 wala 1 million. jaaxal moo tax kon Tektal dama leen indil gan goo xam ne que day toog ne leen ku lii dal. Ah, defal lii ku lii kii. moom nag doonul koo xam ne que sax dafa jiital xaalis yàlla nga koy suturaal mi ngi sant ci côté yëpp. du laaj dara waaw du laaj dara. tension maa ci man. Mm-hmm. ki ma ci gën a bëgg sax mooy kii jënd war naa cent mille deux cent mille am naa ko mm. mi ngi fi ci kër gi mm. boo deen boo leen jëkkee mel dañ ko garab gaa ngi fii mm. bari na fii ci réew mi émouride maa ko man ko émouride maa ci man buy dem ma ko garab bu ci naanee ñetti fan laa lay wax trois jours trois jours sax trois jours kay bu ko bu ko naanee moom moo lay waxal boppam ndax émouride gis nga li wax da nga naan ñu naa la lii ak koy ñàngal maanaam da ngay lekk-lekk yoo xam ne baaxul gis nga nen baaxul ci amurit miskit baaxul ci amurit hmm. gerte gi gis baaxul ci amurit hmm. mais boo ko le yàpp wu bees baaxul ci amurit hmm. te léegi Sénégal yàpp lañ gën a bëgg mook tension ñoo ci yam amurit nag soo ko amee fi ne ne am na ci garab yoo xam da nga koy mac boo séeréwul fi ne koo gis mu problème sonn rek mooy daa seere ci amurit waaw bu séeréwul nag yaramam yëpp doox muy am deret muy lekk li muy lekk di rees maanaam jàmm rek leem bu yàq lekkan yàpp bu bees léegi naan garab gi day daal di rees te garab gi yomb na fii laa koy wuti du ma ko jënd doo ko jënd waaw jeex na kii dañuy dem euh, Italie euh, dem ak fan fi nga nekk ci Sénégal fépp fu lan lay topp maa ngi tiyaawoon léegi-léegi nag damay wër léegi-léegi tey ma dem mm-hmm. comme fi ne bëgg naa koo def léegi nii mm-hmm. maanaam faj bët yi képp koo xam ne am nga waa faj bët yi dama koy faj léegi kaari kaari euh, naa benn sëriñ bu ko wax mm-hmm. lool neex na ma loolu ma nga dëkk ci Daaru Musti mu ni bala ba war a neex ñu def di faj mm. maanaam ñu faj léegi waaw ñi togg ci nii togg ci nii ñiy wax nii di wax mm. xam nga lay bukki bu xëyee di jat bukki bu xëyee di jat danaa bisimilaay fañaak mañaak waaw fañaak mañaak àddina kër wërngal këpp wërngal këpp waaw boo ko defee mucc boo ko defee mucc waaw bukki kenn mënu ko jàpp guddi kenn mënu ko jàpp waaw bu ne bisimilaay fañaak mañaak àddina wërngal bisimilaay suti bu ta mati bu ta la mu ta matt gu deemul borom ginaaw yàlla waaw bisimilaay suti bu ta mati la mu matt gu deemul borom ginaaw yàlla bisimilaay katam làkk suba min kulima koosin tisbaara maraada timis salaamun xawla min rabbi rahim di ñaanal teg am naa ci yaakaar nag Cheikh nee naa la du ma waxee benn télé. Hmm. ñi ma bëgg bari na Cheikh de. xam na ñi may wër bari na du ma waxee fenn. fii ngay ndax fi ma góor nii fi laa góor du ma jóg. te ñi mel naa ci du ma la laaj dara. Hmm. boo ñëwee yor feebar boo mën a ñam maa yow yu bëre. ñu bëreeg moom ba nga dem sa yoon bu ne la bañ a gisati mm. man bari na ku may faj du doo doo ma gis macha ndax maa ngi sant yàlla mm. waaw di ñaan yàlla gën sant yàlla macha allah yàlla nga dëkk ci sant yàlla maa ngi ku la jege di sant waaw maa di sant Cheikh télé bii ca kanam la jëm maa la ko wax incha allah waaw incha allah te bëgg nañu yor salaire yu toll na yu Cristiano Ronaldo yokk lu ngeen bëgg mm. maanaam fi ni nii xam nga fi boo léegi nga dégg sax sëriñ bu la naan dama lay listaxaaral dama lay def néeg dama lay nangam dama lay nangam gis mbir mi Mm. naa neewul foofu mbir mi fi mu nekk mooy ndigal muri ni kun raw ñett mm. lan rawee ñett moo tax mun mënu leen a tëddab mooy ah. ndigal ndigal bu sëñ bi woote woon léegi ni maa bëgg képp ko doon murit foo man di nekk ak loo man di doon nga fekk sama Touba di nga gis koo xam ne am na téeméer juróom-ñetti fukki at noppi xaw la neex mm. ñu ne ko maam ñu ne ñu ne ko bu sëñ Muntaxa daa woote mu ne lu mu wax mu ne nee ku murit nga ñëw Touba gis nga lam gën a fonk ci ne ba lay wër mm. nga naa maam mi lu muy wër wërul mbubu de lu muy wër lu gën a fonk la ko a la gën baax ci moom lay jël yóbbu ko Touba waaw ndigal a ngoog ndigal boo ko amee mm. maanaam tase da ngay juyoo mbugal heure boo ñàkkee ndigal nag taseeg mbu taseeg mbugal hmm. bi ci dokk mooy tabe waaw tabe boo génne woon fii ci tali ni maa ngi jëm ndar te yoruma paas hmm. su kii ah, taxawee ma arrêté ko yóbbaale ma ngir jëmmi sëriñ Touba yóbbaale ma ngir jëmmi sëñ Fallou léegi ñu yóbbul Touba bu la kii yóbbuwul fi ne oto bi fees nga mu fayal la paas dem ngir sëñ Touba beneen bi mu joxe joxe ñam joxe ñam waaw yàlla ko wax hmm. loolu maanaam loolu ñoom li ñu defan alxuraan la yàlla ko waxan al mu njaxa ñam boo ko defee kenn ki joxe ñam nga lekkal kenn ku ku joxe ku regg mm. yow yo yaa sarax nga lu mat junni yoon mm. maanaam am nga xéewal goo xam ne junni yoon maanaam yëpp ci xéewal yi junni yoon masha Allah moo taxal sëñ Abdou Khadre wax ne moytu war na ñëpp waaye ñaar dañ cee raw mm. gars yi nag moytootuñu pakk xam nga luy pakka pakk mooy ëkk mu ne moytu pakk war na ñëpp waaye ñaar dañ cee raw mu ne ku jiitu ak kuy daw waaw mu ne ku jiitu bu daanoo jël ba day fës ñëpp koy gisandoo mm. kii daw bu daanoo jël ba day rëy ñëpp koy yëgandoo mm. sëñ sëñ Fallou ni sëñ yàlla mii ci àdduna bi sëñ bàmmeel mii mm. boo ci defee ñu def ci boo ci deful ñu def la ci na nga ci def lu baax bala ñu ci lee def foofu laa ne yàlla soo ko toppee mu soo toppal yàlla toppal toppal yàlla bala yàlla topp àdduna soo ko waree yàlla war boo waree àdduna àdduna war la soo waru àdduna war nee war a àdduna bala àddunaay war sëñ Abdou Khadir mm-hmm. mu ni yarab àdduna moom la julli ñuy daw moom la gor ñuy daw yoru bàmmeel moom la julli ñuy daw te kenn mënu cee mucc te yor woo Cheikh ah, sëñ Dakar dégg ngeen li mu wax man nag li ma neex ci wax ci fin bi ngeen bàyyi ko xel bu baax ginnaaw bi ma wàccee la kaamil yi di ko ñaanal mu yàgg fi te wér yàlla gën ko kattanal euh, ñaanal tegtal yëpp ñu ànd boo gisee ma ne jar na topp ko fu ne ba def documentaire ci moom njëriñ bi mu wax léegi nii xoolal fii ñu toll am na ñuy teesante ci tiktok bi ci murit ak tiijaan moom mu doon tiijaan jël la gën a màgg jox ne murit a mel nii exemple la léegi beneen murit dina jëlaat lu rafet ne tiijaan a mel nii kon ñi ci pindu teew coon coow li ci pindu teen bi ñu amul baag la sëriñ Touba ak El Hadj Malick benn la ñoo bokk lu woote ñoo bokk fu ñu jëm rafetal ci la nekk. ngir yàlla nit bu doonee taalibe na xam fi mu war a yem te na ci yoo domaine yoo xam ne que dafa ëpp te dafa sensible ñu maandu ci képp ku waral ñu saaga murit yi jàppal leen ëllëg di nga ko yeyoo képp ku waral ñu saaga tijaan yi ëllëg di nga kon nan fexe wax lu baax ba jóge fi moo gën wax lu bon ba jóge fi sëñ Dakar daal kontaan nañ ci yow euh, lii moo waral ne fésal sa mbir day baax man nag dama lay jël émission tegtal uniquement boo xam ne di nga joxe xam-xam yi yaatal bu baax a baax léegi nag guddi gii gan sikkar ngay joxe nag balaa kaneen di ñëw nga wax ne lii ko ko def moom di nga ne yokk aw yiw ci bisu tey. waaw guddi gi moom ku ko man waaw maanaam ñeenti rakka. ñeenti rakka ku ko man mm-hmm. def ko. Mm-hmm. maanaam ndax am na mag ñi lañ ca wax lépp ci njariñ kenn mënu koo wax maanaam xul wallaahu nga koy defee xul wallaahu ginnaaw fatiha ginnaaw fatiha mm. nga def fukk nga def ñaar fukk benn ca deuxième rakka ba waaw troisième rakka ba nga def fanweer fanweer euh, ñeenteel rakka nga def fanweer ñeent fukk ak benn ñeent fukk ak benn waaw ñeent benn xul wallaahu ahad boo xoolee mm. dañ ni yonent bi jàng na ko dafa am ku faatu mm. ñu ni nañ ko jàngal ay lexlaas pour yàlla jégal ko hmm. yonent bi ne ku ne kii taxaw jàng fukk kii jàng fukk kii taxaw jàng fukk kii taxaw jàng fukk mu des benn yonent bi jàng ko muy 41 hmm. li mu 41 boobu képp koo xam ne mën ngaa faj seytaane hmm. te xam ko garab gi boo boo ko siimee boo ko siimee maanaam foo fekk seytaane mu jug dem waaw Cheikh ñi ngi lay gërëm ah, di sant bu baax ku ko man mm-hmm. nga def ko di la sant bu baax di sant nag sama waa groupe bi gis nga sëñ ma waaw sëñ ma silla waaw mbaaleen sëñ Mor Kan mbaaleen mooy xalifa baayam mooy xalifa ba kii mooy ndijaayam sëñ Ibrahima Fall mm-hmm. sëñ Ibrahima Touré mm-hmm. sëñ Abdou Khadir ma nga ca Suweden yoo xam ne gëléem gi mm-hmm. maanaam loxo ma ngi ca biir ak sëñ Mourou Bey Espagne mm-hmm. loxo ma ngi ci biir mm-hmm. ak masa Mbodj président groupe ak Khadim Mbow groupe 1 ak groupe 2 ak ma Fëri Ndiaye groupe 3 di leen siyaar ak Adja Khadi Diallo mi sunu yaay Fanta mooy sunu yaay social bi ndax damay sonn sax ndax léeg-léeg ma woo ko nit woo ma ma diis ma soxla ma woo ko ak alaaji Pate Ndoy moom it macha allah xam-xam la boole kook social ndax pousse pousse yi ma indi woon di ko joxe moom moo ko joxe yëkkati ko joxe ko mooy ñi nga xamee ni mënuñoo dox bëgg dem dama ñëw euh, fële euh, nooto mm. gis benn waay muy watatu di mm. watatu di watatu sa mënatu ma koo muñ ma agsi moom nuyu ko mm. ne ko sëñ bi maa ngi lay siyaar baax da euh, xam na maa yàkkamti sax waaye dama bëgg na xam fa nga dëkk mu ne ma man Tiwaawan la dëkk ma ne ko ah mënu ma Tiwaawan la dëkk ma ne ko ndax di nga soxla puus-puus mënu ma jël a jëf sox am naa ko dama bëgg a tàngal yaram wi wàccee yaram bi comme dama ma tàngal yaram bi wàcc ko waaye boobu dama bëggoon bu ne am naa pousse bi rek ma woo alaaji Paar ne ko yóbbul ko pousse di gërëm sunu yaay fant bu di mm. gërëm Astou ci Amérique waaw ak ak ak ak ak ñoom Aram mm. Diop mm-hmm. ak Ndeye Mbaye Tourino mm. maa ngi gërëm ñëpp jigéen ñëpp mu ne ñu ngi fii ci biir waaw ñoom ñëpp ñu ngi ci Abdou Khadir Mauritanie Abdou Khadir mi nga wax Abdou Khadir Mauritanie eh, fële la nekk Soudan yow la ak moom muy nit ku baax di seex dañ koo seexal seexub Khadir la ah, seexub Khadir la musuma gis waaye dama ne sëñ Ndakaaru euh, gàmm gi faaw gëleem am ci ndax lan waxuma la euh, guddi gàmm gi waaye li nga war a faj ci gëleem te wax na dëgg maanaam gëleem gi yëpp bi ko fee sell ma ko génne booy dem dinaa leen ci jox jox ci cameraman jox cameraman docteur Wade waaw docteur Wade ma Samba Diop waaw bu ngeen di lekk loxo moom ak Modou Diallo bee voilà boo ko yoree nga nga ak maam Thierno yóbbu leen ñëpp nga def ko incha allah bu déwénee bu ma gisee gars yi hmm. du ma ruus ku ci ku ci yukkuwul nag boo ma gisee bul bu ci am kersa bu ma jox loxo man hmm. nee na seex sa waaji kat du dara ku ci nekk xoolal nattal fi nga fi nga fi hmm. ba dem fii ba déwén ma jox soxna may jox sëñ Fall. tey li gën a gàtt gën a ma wax la benn affaire. xam nga boo ko waxee sax ñu ne bokk eh. du ma fi dee. te bu déwénee ñu fekke ko tal ko nga xool gars yi kan yokk nañu wul yokkuñu. incha allah kon Tektal TV dañuy yokku ñaanal ñu nag ñu teg Ligue des champions nag. non di xëccoog ay RMC mbir yi. Cheikh bi ne nii. billaahi sama yéene ci yéen. Hmm. ak sama ñaan ci yéen. te naa ci yaakaar nag. waaw man ñi ma xam eh, eh, musuma ànd ak kuy daanu. Ibrahima Diop ñoo àndan grand sëriñ waaw ñi ma xam-xam nañ ko boo demee tey lay laajte nee naa sa waaye jinne la déedéet du ma jinne de alaaji paate mii xam na ci dara hmm. njege na ma dara sama dara ump ko boo defee tegtal ca kaw rek ma tegtal ca kaw foofu rek laay waxee fi ne nii bu ma nit woon kër ni ma la ma laa bëgg a imité man la waxal ak seex waxal ak seex jeex na kon kon docteur Wade defaral passeport bi maam Thierno Badiane defaral passeport bi Modou Diallo Euh, defaral passeport passeport Guinée nga yor wala bu Sénégal ba ma Samba Diop Italie lañ jëm bu ngeen ñëwee man ngeen di dal bu ngeen ñëwee yeneen i fay ne sax documentaire def kon ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax ak euh, sëñ Dakaru wax dëgg yàlla ànd taxawu ànd def te yàlla tax ànd def yàlla tax sëriñ saa ngi nii waa organisation na kenn ñëw kay boo jógee rek alaaji Pate ah jërëjëf kontaan nañu Euh, alaaji Paate jërëjëf sëñ Ndakaaru alaaji Paate Ndoye nan ngay gisee bis bu màgg bu tedd bi ak jàmm ji nekk fii fii ci Tivaouane nga xam ne que gis dégg nga sëñ Ndakaaru sëñ Ndakaaru li wax sëñ Mor Diop ak euh, jàmm ji fi nekk daal ak bernde waaw euh, loolu moom dara bettuma ci hmm. parce que maa ngi moom yam sëñ kër si lañ gëm te ñi ko gën a jege nag ci hmm. Sénégal gii ñu ne man la te ay rakam a ngi nii nag ak ay doomi ndeyam ndax kër gi ñu woon ginnaaw maa ko jënd tabax ko ba mu àgg ñëwul Sénégal hmm. social boobu ñuy wax hmm. boo amee ko am handicapé boo ñëwee boo ma malika suba ma jox ko puus-puus jox ko puus-puus puus-puus yaa nga ca wutuñ ci dara de hmm. man Dakar dem dikk laa ne am dem na màkk ba ñëw am naa tiraanga yaa ngi sant yàlla na dëkk social bi ñuy dox boo fekkee am na kenn ku ko yeyoo woo ma bu ñibbee Dakar dama koy jox puus-puus wala ma indi la ko ci loolu rek la ñuy dox wutuñ ci dara. billaay tonni ceeb bi ñu ma doon indi lit ñi ma ko jox xaw ma leen de. Mm. man dangay woote rek. ma jël sa numéro téléphone. Mm. ak fi nga dëkk. waaw nga ñëw bitig bañ koy joxe. Mm-hmm. sa tur nga fay bàyyi. man sax mm. duma la gis. kon social boobu man naa cee wax. mën nga cee wax. ah kon daal tey yàgg na ci. moom daal lu baax a ko ñor. li naan yàlla ci jaamu yàlla yi. te gis nga ñaan yëpp ñaanu waajur ceeb. kere bi muy dem Italie moom mii. waaw. xam nga ne kayitu jàmbur la demee. kii di jàmbur secret ba wóor na wax yàgg na yaayam dani. waaw. Euh, biñ pare bay dem yaayam dama ni dama ko ne ñaanal ko mun ma kii bu ma ko ñaanalee du àgg Italie parce que ñaanal na boppam ba pare. Hmm. dëggoo ma de ñaanal na boppam ba pare. ñaanal na boppam bu ma ko ñaanalee du àgg mun ma bu ma àggul Italie bàyyi sëñ Babacar Si. Hmm. moom mii nee naa la man maa ko gën a jige fii ci Sénégal. boo ko dee woo jotoo ko woo ma. Hmm. ma wax la ni la place te la ne. macha allah looy bañ mu dégg ko. Hmm. bu ma ko yëg bu ko moom it looy bañ mu xam ma xam ko bu mu ko yëg. bu mu yàlla na seytaane sori leen. waaw mais social bi moom. Hmm. foo ko takk passé na ko. parce que am na ñuy wax ci média yi nii nekk dañuy dóor de. xam na mais ànd bi dóor newu ci. dëgg rek a fi nekk. te da nga koy woo mu defal lay mbir te la gis. te du la gis. nga woo ko pour mu ndimbal nga ñëw ci man ñu jox la ko te du ma la gis. Hmm. nee naa la koo gis mu yeyoo ko nga dab ko ci mbedd yeyoon ko. Mhm. woo ma rek ni ma diw mii de gis naa ko yeyoo na ko. yeyoo na ko. romb naa raam jeex na ci moom de sama kër ba léegi pousse-pousse yaa nga fa ne. dégg ko kon léegi pousse-pousse yi képp koo xam ne que mënul dox waxuñu ko soxla di jël di jaay ak. ay xeetu Sénégal nag tappale day dugg ci lu ne. moom koo xam ne que yeyoo na ko te pousse-pousse nag bu kenn ñaan yàlla yeyoo ko kon ku gis ku ko yeyoo rek mu ñëw mu dimbali ko ci Tektal TV numéro yaa te it nag ba ca topp euh, fa mu tàngee. waaw dafa jël ba mu fees jël te wutu ci dara. ndax day liggéey comme ñëpp. te gis nga groupe bi ñi ki groupe soppee Serigne Dakar bi gis nga sëñ ma si la ñoom ñoo ngi nii. waaw koo ci gis teraangay kese la. teraangay xam nga dafa am groupe yoo xam ne dañuy wut dara. mais ñoom wutuñu ci dara. day sant koo ci wool fam xam-xamam yam mm-hmm. dina la ko jox. Mm-hmm. te gis nga ki ñu naan sëñ ma si la ak rakkam ji. mbaa leen dëkk. seen maam kenn yóbbu leen ku fa dem xam ko. kon ma jël sëñ Massi la. nga ñëw mi ngi nii toog. waaw mais sëñ Dakar moom. waaw nit la boo xamante ni. alhamdulilahi rabil alamin bi ngeen ko defee ci buntu këram ñu mën a wax ci moom. macha yàlla yàlla gën a barke. ko woon feneen. du saf. ndax dañ naa dañuy dóor waaye ay ay rakkam a ngi fii ay doom ngi fii. te lii ku fi ñëw xam ne du ngistal. du ngistal yàgg na ci. yàgg na ci macha allah. macha allah kon sëñ Massi la bismillah abonné leen Tektal TV ba su furus ba su close bi émission bu ñëw ngeen am ko waa sëñ ma si la ñu ngi siyaar ñu ngi siyaar ba lépp jàmm baax alhamdulilah sëñ Baye Fall si la ñu koy sëñ ma si la euh, bis bu tedd bis bu màgg bii lan nga ci mën a wax ci bisu ku tedd ki ak euh, sëñ Dakaaru tamit parce que fi mu ci ànd kontaan lool maam Cheikh maa ne wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu di am mbégte ci yow mm. baax nag ba pare mm. di am kontaan ci yow ci teew gi nga teew fii yombul nit nag bu la defee lu yombul da nga koy sant gërëm ko. xolam sedd. bu ëllëgee boo ko soxlaatee mën a yomb. ginnaaw bu ñu foofu ñu ngi. alhamdulilah ginnaaw bu ñu jógee foofu nag. Hmm. sëñ Ndakaaru mi nga xam ni moomam daara ji. waaw soo xoolee mboole mi ni mu baree nii. Hmm. yombul sax. yombul la. yitte la hmm. te yitte nag moo yett bunt. waaw nit ñi ku leen woo. boo ñëw di leen wax loo. te dana wax ni maam gan kenn mënu koo xoo def la ñett wax. maanaam xool. gis wax. saa yu ñëwee xool la mu gis da nga lay nittali. kenn muñ ci dara yàlla doon lu rafet. da nga doon rafet. Mm. te sëñ Dakar mi dafa nekk nit ku baax. Mm. soo xoolee groupe yi nga xam ne fondation na ko. Mm. juróomi groupe lañu. ñun ñi nga xam ne ñoo ay sëriñ si ñu tudd ay sëriñ. te nekk ay jëriñ mu boole ñu ci biir. teg ñu ca kanam ñu jiite njaboot gépp nga xam ne dara dara loo xam ne lu yàqu doxul ci groupe bi. nga xam ne waxtaanee yonente bi. ak sëriñ Tuubaa suñu yaakaar tey ëllëg loolu rek moo fa nekkee. ak dimbali nit ñi yaa ngi ni murit nga ah. ñii tijaan ñi kii mu doon benn boo xoolee groupe bi murit a ci xaadir a ci tijaan a ngi ci laayant yi ku ne ngi ci groupe bi hmm. waaye danoo jàppante nekkante ba mel ni ñoo xam te ñoo bokk ndey ak baay bi nekkee ci biir léegi hmm. am na ñoo xam ne mosuñoo gisante hmm. waaye bi ñu gisantee dafa mel mos nañoo xamante bu yàgg. loolu nag li ko waral sëñ Ndakaaru moo ko waral. ndax kuy gën a euh, kuy dox ci xamalante doomu aadama yi. Hmm. kooku boo da nga ko war a sant gërëm ko mën a hmm. bàyyee koog suñu borom. waaw kon sëñ Ndakaaru li mu def rafet na. Hmm. am nañ ci mbégte. gàmm gi nga xam ne mooy gàmm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ko defal. moo wax ni. gàmm gii nga xam ne mooy suma gàmm màggal gi. muy juddu yonent sallallahu alayhi wa kon lu ci def ci maanaam benn tibub ceeb dana wax ni euh, togg aji ab ceeb jël benn tibu ceeb jox ko aji xiif ji moo gën tabax junni juma. macha allah junni juma. te léegi ñaata nag la fi rey. kenn xamul ñaata ci gilem la fi rey. ñaata ci xar la fi rey. ñaata ci ginaar la fi rey. Hmm. ndax teral doomu aadama yi ci bis yonent sallallahu alayhi wasallam. kon am nan ak cant ci moom. Hmm. di ko ñaanal ci moom defal ko jàmm ak tawféex. ak tawféex jërëjëf maam Cheikh yàlla defal tawféex. amiin ak i ngëneel. amiin ñaanal eh, suñu borom defal la jàmm takkal TV bi nga xam ne nag mooy ñëw fii ci daara ji. Hmm. ngir feeñal yéene ji nga xam ne mboolee moo fi nekk ak liggéey bi. yàlla sax moo defal ko ndam. amiin amiin bëgg naa nga ñëw mbaaleen. mooy mbaaleen noonu naa fa ñëw mbaaleen sama dëkk maam la sëñ Aliou Kane hmm. Hmm. sëñ Aliou Kane moo xoon ko sa aajo noor faju doo fa ñëw kon di leen fa ñëw incha allah dëkk boobu naa fa ñëw te bëgg naa sa aajo gën a faju ngay ñëw gën a feeñal dëkk ba dëkk bi nag ku ne xam na ko hmm. ndax yaatu na ci Sénégal bari na ñoo xam ñi xam nañ mbaaleen boobu mbaaleen mbaaleen am na ñoo ko xam tegtal fan la mbaaleen boo jugee Tivaouane maanaam boo jugee Ndar Tivaouane ngay jaar Njaxate Njaasaan ngay wàcc su fekkee da ngaa jugee ngay ñëw ba nga jël oto Tivaouane wàcc Njaxte Ndiassane bu fekkee da jógee Dakar da ñëw ba Njaxte Ndiassane nga wàcc boo ñëwee fu ne am nay kalando kalando hmm. yi 500 rek ngay fay ñu indi la mbaalin waaw dëkk boobu nag dëkk fajukaay ajalo ku sa xel wëlbatiku ñu koy tuddee ay dof maa ngi jéglu ci kaddu gi hmm. ci lool gaaw na ci lool dugg fa jégal am aajo joo xam ne jafe na. waaw gaaw na ci lool. gaaw lool moom. ab tënk la rek. ab tënk la rek <laughs> ndax jotaay bi. non dama lay jël waaw ndax jotaay bi dama lay mm. naa jël sa aajo. wax si mm. li nga ci gàmm gi. te am na loo xam ne duñ ko mën a saraa duñ koy tënk. non non ci domaine bi nga yëngutu dama lay jël tegtal. ñu wax ca foofu. waa diaspora jariñu. tey nga am mooy gi nag damay benn benn kii waaw guddi sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy def soo ko xoolee day toll ak jàlla jàlla jàlla jëli loo jëli di si jot loo jëli di si jot loo yót di nga hmm. ak laam-laam hmm. aajin 3 la hmm. laam-laam 30 soo ko boo demee 33 33 nag boo ko multiplier 33 moo lay jox 12000 100 144. 144 bu ñu ko defee bisu tey bi ñaan sañu aajo aajo yëpp faju aajo yëpp faju te ñu jox addi addi rasulillahi Allah kii ñëw kan la sëñ Mor Kane jërëjëf Tektal TV seen bu ah sëñ Mor Kane sëñ Mor Kane waaw ba lépp jàmm sëñ Mor ba fu tamit yéen a ah. eh, Mor Kane lan ngay wax ci bu tedd bi bisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sëñ Dakar ak Pastef bi mu àndal ak baax geeg. social bi ak dal geeg yëpp ak xam-xam. waaw ginnaaw bi dafee asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu julli si yonante bi di sant suñu Tuubaa Ahmadou Bamba suñu yaakaar tey ak ëllëg guddi gi moom day doon loo xam lépp lu ci waay def maanaam la suñu Tuubaa waxoon ni xeebu ma ginaar ba ci gileem ak naga comme ni mu waxee yooyu moom booy na noppi gaay mu am ci guddi Seydina Muhammad gi waaw ndax maam maam li mu wax li Sëñ Tuubaa waxoon rek la waxaat moo tax boo bu ñu nee Sëñ Tuubaa jëwriñam neexut a weddi ndax ñoo bokk benn kii nii lañ def waaw li fa wax ni xeebul leen daal lépp lu ci waaye def ren yokk ba yëg ko waaye doo wàññi ko mukk waaw suñu diggante Ndakaaru nag dañ ciy ñëw mm. ndax Ndakaaru day borom baax lii lépp bu amee maanaam mooma mm. yaa ngi dégg yàlla daan dogal maa ngi sa waa moom yàgg nañ fii ñëw daanaka mi bëgg mat fukkaat maa ngi suñu mm. waaye mbooloom tey moom ren tey fi doog a daje loolu nag social boobu mu leen wax mm. moo gaayam yi ñoo gën a xam ñun moom bokk nañ ci groupe ay kilifa lañ dañ ci joxe xam-xam waaw waaye wax dëgg suñu daal mm. la suñu Abdoulaye doon wax moom dalu ko suñu Abdoulaye dafa wax ni nit bu ñëwee wax nit bu ñëwee wax da nga koy da ngay jël wax ji teg ne bu jëfee nga xool wax ji ak jëf ji méngoo na wala waaye moom lu la wax la moo ne ci moom mm-hmm. lu lu nekkul ci moom rek moom lu mu la loo xam ne waxuloo ko rek néewul ci moom waaye la wax la moo nekk ci moom waaw te xéwalam tamit mm-hmm. maanaam bu maanaam kenn tamit tey amee la gën a ami mbokkam mm-hmm. waaw xam nga mënoon naa dem nekk xam nga wax na la ay cosaan bi xam naa jaar na ba jàll mënoon naa ñëw toogee neneen da loolu dafa yomb si nit ku ñuul waaye def ko daa ñëw tey gën gën a gën a a xacaat ñëpp te bés ñun ñi ñëpp xacaat du jëkk suñu dëkk du fa jug mbaa leen comme ko suñu monsieur la waxee ndax suñu maam si Aliou ko doxoon ko say aaj na doof teg tànk ba di fa dem yaakaar naa war nga leen a xam waaye suñu Dakar lu wax ci moom ci mbaax moom wax dëgg yàlla moom dañuy desal lu bari waaye nag li du ci ci ci lan wax ne xajandoowul ci cini te yéen da ngeen yàkkam am nga yeneen programme yu loon def mm. kon dañuy dagg laaj foofu nga laajal ba nga laajal leneen ñu ñëwaat foofu waaw ban kii ngay joxe rek nga ne ku ko mën a def ci gàmm gi jariñu bisu ci gàmm gi da doon dafa doon loo xam kon si Ndakaar moo ñëw na ci julli gi waaye dama ñëwaat ak yéen ci beneen bés boo xam képp ku ko mën daal. maam mi maa sallallahu muhammadin. Hmm. xam naa gàtt na te am na solo. ko ko mënu nga hmm. ko cent nga def ko si ngëneel gi guddi gi baax na ci. Hmm. baax na nag ba weeru teroo ba fii mais guddi gi ko mën a saxalit nga def ko. naafile yi si Ndakaaru ñëw na moom duñ ti ñëw. waaw loolu mooy kii waaw. ñaanal Tektal TV tamit mu dem ca yéen na leen da leen chiffre lu bari waaw fu ñu toll da leen chiffre xam nga yu bari yu ñu waroon tënk ci wàllum yu demee noonu waaye moom ci ci wàllum waaye affaire dafa faj ak ñaan non la jël émission tegtal waaw léegi yéen da leen di ñaanal suñu borom yokk leen comme ñu yokkee maanaam sooral ba nga xam moo tiim yëpp sooral mi Lam Fall ndax xam ne suñu Fallu a mm. wax dëgg yàlla mm. am na jàppal mm. diw kon yéen ñi nga xam suñu borom njëkk noo defal ñu defal contact suñu kër suñu waaj yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñooy ñun ñooy moom da leen ñaan ñu taal leen ba gi nii mu rëyee ba suñu tool yëpp di ko def yéen ngeen yéen ngeen àgg loolu mel noonu ci kàttu suñu ko foofu rek kon Mor Kane kon léegi ku soxla suñu numéro tamit pour en cas rek nga def 77 627 18 07 après ci ni ngay seetaane kii bi rek di nga mën a jokkoo ak ñun bu baax a baax a baax a baax waa ci wàllum ñaan dinañ ko ñu jël ko apparent ah. incha allah jërëjëf sëñ Mor Kane jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi euh, sëñ Mor kan ginnaaw bi mu bàyyee ñu ñëw jël Ibrahima Touré ñu gën ko xam ci Ibou Touré bokkut ak Ibou Touré nag bay football beneen Ibou Touré la ah booy bambara Ibou na nga def maa ngi fi rek maa ngi si jàmm baax baax alhamdulilah ñu ngi lay siyaar ci bis bu màgg bu tedd bi waaw alhamdulilah comme ñun moom xam naa suñu olof demeewul noonu wante dinañ teg tënk rek vraiment bés bi moom macha allah mhm. ndax sëñ Dakar xam-xam lañ xamante mhm. ak ay social jàppale néew kii rek askan bi quoi mhm. ñu fekk ko ci yàgg nañ ci vraiment ndax fii mooy deux ans ñu ngi ci am na ñu ñu jot a xam nag vraiment. Ah. ndax ñun lii lañ xam. Hmm. man moom ndaw laa maa ngi nii wante bambara laa wante ñu ma xam xam nañ kii ne du nit ku ndaw. du ci xam-xam ngay dox daal. waaw ci xam-xam lay dox wante man ci xam-xam bu ñuul lay dox. bu ñuul kukk. bu ñuy wax ah. la gën a ñu ko xam fii nag ramde. Hmm. ñun loolu la ñuy liggéey. garab ak lu ne luñ mala yi nii di yàlla ñu jox. Hmm. mala boo ma téyel nii ma wax la si juróom-ñaari secret boo xam ne bokkuñu. waaw loolu yàlla def nañu ko. waaw ah, ba ban secret la nga. béy nii. waaw béy moom dinaa la ci wax benn affaire soxna yi kum soxna yi ak nit ki sa doom. lu mën a may tëxët tëxët tànk béy. waaw bul fexe bum na laal awram. tànk béy bum laal awram. kum tey te nga nekkoon di si béy nag di ko defar. Hmm. yàlla def tànk béy bi dam dam def xale bi def la lu xaw lu la xaw a naqari da nga wiccax ko bu mu laalee awram. Hmm. dina fëgg buntu néegi jàmbur fekk waxante wuñ ko. Hmm. waaw day doon ku xam ne day njaalo trop. ba day dem fëgg buntu néeg boo xam ne te waxante wuñ ko. ba tey béy. képp ko xam ne lu ci mel ni sa gel nga ànd ak moom ci dibiteri hmm. boo tomee ndigi ndigi bee bi la ko defaree nga bokk lekk ko waaw boobu noonu yéen seen diggante fa la yem yàqu la dëddale la moom pere na hmm. waaw xam naa moo dinañ ko dog foofu noonu ñu soxla buñ jotee numéro bi eh. dinañ gën a yaatal waaw kon après naa la jox numéro bi ma jël boo duggee ci garab yi tamit noonu la ah. waaw bu ci faj ak lu koy waral yëpp waaw wax la lu muy demee waaw xool say mbir xam sa nga biddiw ci lu mu soog laa liggéey ñun loolu la ñuy liggéey ndax ñu ramdi la ñuy xoolee ñuy xool ramdi nit ki noo mën a mel buñ la xoolee gis la fan nga dëkk man maa ngi dëkk Saalum gannaaw Crémé Jabel ñuy wax sama ku bambara incha allah kon a la jël émission tegtal incha allah nga yëngal àddina ak xam-xam da def résultat de ah. yu kaw waaw ñun ñu na jëmm ji. jëmm ji ak sol mi dañoo naturel. dafa naturel bu ñu nekkul li yëngu ci yeneen moom. du ñu coupe bi nag pour coupe bi ñëw nga ci dara. Ah, waaw ñun moom ba tey moom dañ yëngu ndax maa ngi nii yàlla yàlla bu ma tiim nii ñeenti équipe laa téye nii benn bi moo desegum yeggagul final. Hmm. barki démb moo ci mujj bu ma tijjoon sama téléphone ma jox lay profit billaahi wa kitaabi ñu xam ne ñeenti équipe yëpp ñetti yëpp ek yegg nañ final benn bu moo desagum ñu ngi dem ak gum barki démb lañ gëj a football te ñoo door D1 kon nag ay Real yooyu mën nga ci dara nag ay ku may Real yooyu noonu ba tey ndax ñun moom liggéey rawaan dañ koy def hmm. liggéey rawaan dañ koy def sa marque nag waaw sa marque bu tamit ba tey dañ koy liggéey hmm. waaw ñu jox la ko nga dugal ko sa sa biir kawaas def ko Sadio na jël ballon d'or man na ne. bu soob yàlla dugal rek. waaw comme niñ moom luñ ko waxee rek bu soob yàlla. waaw dëgg kon Ibou Touré dégg ngeen ko ah? xam lañ juddoo. Hmm. si xam tamit garab jëlee ko tobb ba ba ci reen ba. Hmm. boo ñu téyeel ñu wax la lii ak lii mooy lii ak garab bu mën a doon boo xamoon ak garab ñu àndoon ci àll garab boo laal moo wax la ci secret. non ma ñëw. barke la waaw ne poftaan bee. Ah. xam ci secret yi bëri bëri bëri sax. waaw xam naa ñu xam ram di bëriwul. dinaa si jox benn secret. waaw képp ko xam ne ubbeeku bu am doole nga bëgg nga bëgg raw say morom. waaw waaw nga dem si garabu poftan. garabu poftan wa nga ut 45 xob. 45 mooy limu aadama. waaw nga bind ci benn bu ne am na kii bu ñuy wax aadama ci ramdi. Hmm. ñu xam ramdi xam dinañ xam nga bind ko ci boo dem nga yóbbaale ganaar bu weex. Hmm. boo kii nga lal feuille ni nga rendi ganaar bu weex bi teg ko ci kawam bët set ba ñu balaa ngay ñëw da nga fekk rawaanu garab bi. yóbbu ganaar bi mm. nga ñëw jël buub xob yi nga ñëw dëbb ko kii ko nga koy sango di ko suuroo nga raw say moros maa wax noonu ko ci tey ma jox la ci beneen ci mala yi képp ko xam ne danga ngaa bëgg bul ñee sa morom mm. xoolal mbaam fu weex ci moom biir bi ak gëmëñ bi mm. foo fekk ci mbaam foofu day weex mbaam mala yëpp moom ak ganaar ñoo si ëpp wërsëg nga raxas biir bi ak gëmëñ bi boole ndox bi boo ko sangoo doone sama morom defal ma lii ci kaw ci kanam rek. ci kaw ci kanam rek waaw. ñaanal Tektal TV nag mu dem ci. incha allah bu soobee yàlla dinañ ñaan bu baax a baax. si kaw si kaw si kanam rek incha allah rabi. waaw dinañ dem ba incha allah amul benn problème bu soobee yàlla. merci ok baax na. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi. baax jërë ngeen jëf mbokk yi ngeen abonné Tektal TV bu baax a baax Abdoulaye Mbengue ah. euh, page Facebook Tektal TV l'officiel ñu ngi fii ci kër sëñ Ndakaaru ci Tiwaawan Euh, ñu jël ci waa organisation bi Abdoulaye Mbeng bokk ci liggéey bi euh, Abdoulaye Mbeng bisu tey bu xéwale bi bisu ko tedd ki lan nga yëg lan nga wax. mbégte rek. Hmm. Seydi Hadji Malick daf ne waa amun suma sërun suma yawmun. fii tansim injaawu sujuuni. sururun fii. Hmm. maanaam at mi weer wi semaine bi bés bi lépp mbégte la wax dëgg yàlla ñu bég lool nag hmm. ci ñëw. organiser fii suñu organisation nekk nag jàppale suñu maam Seydi Hadji Malick si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñu woo ko ne alazimo layla wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraami doolu kan ñëw leen kat ñu màggal guddik yonent bi sallallahu alayhi wa bu fekkee nag du ngeen jege dara dara ci lu xaraam waaw ci loolu organisation est-ce que yomb na léeg-léeg nga jiite ku la mag léeg-léeg ku la mag jiite la léeg-léeg am ku kenn ku nekk jikkoom léeg-léeg nga joxe ndigal sax nit ki xaw a mer léeg-léeg nga joxe nit nit ki du yëg bu baax xeet yooyu est-ce que dina yomb ci bis surtout fu ñu sàkku yu métti loolu la def organisation lu lu lu lu luy métti rek moo la gën a métti nit ku nekk da jikkoom la yendi waaye yow boo bëggee ànd ñëpp ci sa jikko rek coow am ni ngay def noonu mooy nit ku nekk nga ànd moom ci jikkoom Euh, alhamdulilah rabbi alamin bi ñu commencé ak léegi yàlla ñuy suturaal këne ñi fi ñëwagum amul kenn kuñ ci woon benn jikko ñun tamit ñu ngi def la tout ba ba ba ba wàccee suñuy suñuy dënn tamit ngir man a jëflante ak ñoom waaye nag dañ koy sante ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ndax ñun ku ñu xool da nga yaakaar ñoo jiite fekk jiite wuñ sax am nañ président organisation Abdoulaye Diop lépp lu mu séddale ko xam ne kat benn nit mënu def dara. mu jël lépp ku nekk mu partagé la ci benn côté ngay doxal. organisation nan la comme ku bëgg defar ba far yàq léegi ku organiser nan lay gisee loolu acte boobu. ku bëgg a defar ba yàq xër nag da koy waral xër am na ñoo xam ne bëgg gis leen waaye boo jiitee li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laysa sadidu bi surati innama sadidu man yamliku nafsahu indal ghadab bu fekkee nit daf la def dara. bañ ngaa yàq organisation bi. bësal sa xol dañoo yaakaar ne ñi ne ñoo am doole déedéet. kii am doole dëgg mooy ki nga xam ne def nañ la loo xam ne tey mën nga cee wax lu tëkkal àdduna. nga bës sa xol ba doo ba doo def loo xam ne bu jeexee doo ko doo ko rëcc. waaw ban témoignage nga mën a def ci sëñ Dakar ak Pastef bi mu àndal. man tawaddaa rafaahullah ku wàcc yàlla yëkkati la. bi ma xamee ne mooy Serigne Dakaru ba ñëwee ba ci suba ga dama toog moom ma ne waaye waa ji moom kan la wallahi alazim ñu baal ma ci kàddu gi damaa yaakaaroon que ne booy la ci kër gi sax mm. ndax biñ ñëwee jëngalam lañ ko fekk mu solo ak t-shirtam mm. ñun ñooy toog ci kaw mu toog ci suuf da ngay taxaw fële sax woo ko mu ñëw au lieu que ko waroon fekk ji loolu yëpp nag wàccee boppam woyof bëgg nit bëgg nit surtout bëgg nit mm. ay temps sax ñu xaw bëgg dugg ci mboy gi moom moo ñuy woowaat ba ñëw mu ne a ah, defee leen nii ak nii ak nii. wax dëgg yàlla wàccee boppam surtout yaatu. Hmm. yaatu hmm. yaatu. wax dëgg yàlla yaatu. kon ñaanal ko daal alhamdulilah. ñu yàgg fi ñaanal ko yàlla yàlla dimbale ko suturaal ko. Hmm. aar ko làq ko fi yàq yeggut. sam papa nag dafa ma ñaa ñaan mënta weesu ñaar. ñaan mënta weesu ñaar. li nga bëgg yaa xam yàlla ko yàlla defal. bañ wala li nga ragal yaa ko xam yàlla na ko yàlla dàqal. leneen loo waxati détail la. macha allah alhamdulilah. léegi lan ngay wax ci kii nu mu maa ngi bëggoon wax ci euh, par exemple ban secret nga mën a joxe boo xam ku ko mën a def ci bésu tay bii dina mën na la jëriñ. a yokk la ah waa secret yi de moom bëri na. nga ne tuub leen wala astaghfirullah nanga wala bismillah basmala wala nanga. waaw bésu bi daal. Ah. lu waay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doyul. doyul waay julli ci yonent bi sallallahu alayhi beneen bi nag maa ngi koy diggal ñëpp. jamono ñu toll nii. wax dëgg neexul te ñu bëri cet moo leen waaw ku jël ku jël uh, fa uh, Fatiha. Fatiha jël kawsara. Mm-hmm. nga def wa in yakkaadu lazina kafaru. waaw la yasqoonaka bi absaarihim lammaa sami'u zikra. wa mm-hmm. yaquluuna innahu la majnuun wa maa huwa illaa zikrun lil aalamiin. Mm-hmm. Fatiha ba'da kulli aaya. nga def wa in yakkaadu def innaa a'taynaakal kawsara ba jeex. nga boole koog ndoxu géej. Mm. sangoo ko juróom-ñaari fan. incha allahu rabi da nga yëg ne. Mm. lépp lu nekkoon ci sa yaram dañ na. ci cat ci cat. macha allah incha allahu rabi. incha allah jërëjëf jërëjëf alhamdulilah jërëjëf. ngeen jëf ngeen abonné Tektal TV bu baax a baax a baax ñu ngi Kër Sëñ Ndakaaru fii ci Tiwaawan nag tey nag dañuy jël koo xam ne que mbokku maam Cheikh Ibrahima Fall euh, mooy sëñ Ibrahima Fall jóge Touba sëñ Ibrahima Fall ñu ngi lay siyaar ci bis bu màgg bu tedd bi. ñu bu baax. ginnaaw bi ñu ñëwee sëriñ Ndakaaru mu doon suñu wóllëre doon ku baax koo xam ne xam-xam yitteel na ko mu dajale mbooleem boroom xam-xam invité ko ci bisam bi ñu ko ciy jàppale di koo xam ne doxul ci ay caaxaan moom dëgg rek lay dox dëgg ko ñor te xam-xam doo nga ñun nag ñu ci ànd moom bu baax a baax a baax di ko ci jàppale di ci jàppale tamit mbooleem jullit boo xam ne mm. yaa ngi ciy sàkku ak xaajo boo mën a yor mm. si kàttanu yàlla ñu ko ciy jàppale baax a baax mm. incha allah rabbi euh, sëñ Ibrahima Fall yow da ci wàllum faj ak ñaana mais seetu bii nga yor ni bu ma ci seetoo dina ma indil jàmm wala dafa may lor waaw seetu bii nag ñi ngi koy faral di liggéey dana dox si kaaraange dana dox si bayre waaw ma rawatina nit nit ñu xonk ñuy wax tubaab tubaab yi incha allah rabbi rawatina si loolu. Mm-hmm. te bayra tubaab nag am na ñu koy wax waaye dafa bari façon dafa wute. Mm-hmm. am na si bayra yoo xam ne boo ko jëfandikoo. Mm-hmm. fukki fan ak juróom nga mel noo xam ne da nga yëg sa bopp loo xam ne lu kawe sa njott la. maam nasaraan yu jigéen ñi dana wuy ba bayre dafa bari façon am na yoo xam ne jigéen ñi dañ lay topp am na yoo xam ne góor yi dañ lay topp am na si bayre yoo xam ne boo ko sangutoo ngir am soxna tubaab da lay yomb lool lool lool lool lool lool paa wala kan ak tubaab de tubaab bu ndaw bu nekk xale daal waaw tubaab bu ndaw. tubaab bu ndaw bu mag boo si bëgg rek waaye daal yow moom danañ la topp. waaye yow yaay xam nooy maîtriser xool ki nga bëgg rek. waaye moom danañ la topp. te nag ndax day ànd ak kaaraange ndax bayre bu amul kaaraange te te maam day ànd ak wërsëg ànd ak wàllu am-am. nga xam ne nit ñi lay ñëwal danañ la jox alal waaye bayre boo xam ne wax dong la loolu amul sens. Mm. te bayre mag ñi nee nañ boo ko amee waaw te kaaraange tamit nit ñi dañ see wutee mm. am na ci yoo xam ne par âge am na kaaraange yoo xam ne boo amul fanweeri at ak juróom waroo kaa laal mm. waaye nit boo xasee am fanweeri at juróom wala fanweeri at ak ñeent kaaraange bu la neex mën nga kaa laal waaye ñi am vingt ans wala dix neuf ans wala vingt deux ans dafa am kaaraange yoo xam ne yu ñuy laal mm. waaye daal daayira Touba moom yàlla jagleel nañu si baax a baax. non non dama la jël émission tegtal. Mhm. incha allah bu yaatu. ñu joxe nga yëngal am ba si ndoxum siti ak xam ne dafa am hémorroïde. Hmm. bi huit huit la. te waaw te am na si ñoo xam ne ñu ngi réew ma. Ah, ñoom jëfandikoo noonu ko te gis nañ si ay résultats ba huit jours la. amul ñaari biteel lay doon. non dama la jël tegtal. Mhm. incha allah bu baax kontaan nañu sëñ Ibrahima ah. loo ñaanal tegtal TV. waaw ñu ngi leen ñaanal. ngeen am jàmm seen télé bi gën a yokk ndax yéen doxu nañ si ay caaxaan si dëgg rek ngeen di dox ñeen ni ñaanal yàlla naatal leen ba ngeen xam ne seen télé bi da ngeen sàmm lu kawe seen jot si barke yaa rasulullah ñeen ñaan bu baax a baax di leen fasal nag te xam ne moom si kaw si kanam rek incha allah rek surtout ma nag si bis bii ngeen ñëw bisub Serigne Ndakaaru mm-hmm. ku nekk xam na ko si xam-xam ak rawatina mu ànd ak sëriñ yi mm-hmm. incha allah rabbi waaw lan ngay secret boo joxe ku ko mën a def ci gàmm jariñ waaw secret bari na am na si ay ismu ay ismu jalaal yoo xam ne boo amul fanweeraat waroo kaa laal. Hmm. waaye danañ leen si laabiire yu yem. ti ti danañ leen jox si wàllu kaaraange. Hmm. képp koo xam ne yaa ngi xëy. ngay jàng xulance bi rabbi naasi. Hmm. ba wëttiini. maanaam nga di saxal bu bu naasee wëttiini ba naas yi mag ñi nee nañ la ku koy def ku la fexeel jóge fi bu dee wëttiini ba naas yi da lay të ina ax tey naaka ba naas yi moom ku ne man na ko loolu nag ku mu të ngay jàng falaxeek naas yi wala saa boo xëyee nga jàng juróomi faatiha wala juróomi bu juróomi basmala ba léegi ayatul yu juróomi yoon ak la xaddi jaayakum juróom ñaaran ak salaatul faatiha képp ku ko saxal da nga am xéewal da nga am ak yokkute surtout ismu jalaal bi nga axamul saxakun xalaxun yasul ba léegi aaya yaasin boobu ñu wax alyawma naxtim ala afwaahim wa tukallimana aydihim wa tasxadu arjuluhum maa kaanu yasib boobu tamit noonu la baaxee si wàllum xéewal rawatina tamit la xalqu samaawaati wal aa ak min xalaq naas walaakinna aksara naas laa yaxlamuun boobu tamit rawatina si wàllum xéewal waazin fi naas bi xajiyaatik rijaalan ala kulli daamirin rawatina ku koy saxal da nga am xéewal rawatina nag maam salaatu fatiha tamit rawatina képp ci salaatu fatiha bu ne salaatu fatiha moo si doole képp ku ko saxal da nga am xéewal te doo ñak rawatina 777 777 bu bare ngeen di ko wéeru 77 waaw 77 incha allah rabbi ñu ne ñaanal si jàmm incha allah jërëjëf sëñ Ibrahima Fall jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi abonné leen Tektal TV bu baax a baax bés furus bés kolos émission bu ñëw ngeen am ko bu baax a baax sëñ Fallou Mbaye mhm. sëñ Fallou Mbaye euh, lan nga wax ci bis bu màgg bu tedd bi bisu yonent bi sallallahu alayhi te kii di sëñ moom sëñ Mor Diop am ci Pastef trop macha allah euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ni mbooleem fi teew ñëpp di siyaare ñëpp di baalu ñëpp àq ñëpp àq di wax suñu kaddu ju ñu yëkkati yàlla na fekk ñëpp nekk ci jàmm ginnaaw bu loolu jàllee ñu lu sunab jotaay fii ñu sant yàlla ginnaaw bu loolu jàllee ñu sant ko si Ndakaaru su nag teew ci tey jii si teewaawoon xëy borom doyal mu jot waaye ci moom la ko suñu borom jaarale xëy na mën naa ne wet jii nii tey fi mas a ñëw ginnaaw bu yàlla wooyee foo dëkk foo dëkk Touba la dëkk Touba Daaru Rahman ba jëmee ca njurul daara si seelu ca yoon wa fi dëkk bu naan Daaru Rahman hmm. fa laa dëkk ah, Sëñ Fallu nag mbokkum taalibe la moo xam ni yàlla daa dogal ci daara la nekk di yëngu ci wàllum jàng ak jàngale hmm. loolu mooy sunu métier ñu jëlee ko ci sunu wayjur bu jëlee woon ci sunu maam moom lañ topp ba fi mu toon nii hmm. ñu siy sant yàlla bu baax a baax ñu ngi siy defal tawféex bu baax ndax sant mënut a weesu juddu fekk say nekk ci lu baax ñu tàggat la si yar la ci ba ëllëg ñu xëy wan la gannaaw ñay jéem a roy si seen tànk fañ jaaroon di ñaan suñu borom mu dolli ñu dimbale ba jéem si suñ kemt lay kàttan bañ de suy lu kawe njortu gannaaw loolu ne ñu sant Serigne Dakar bu baax a baax a baax ak mbooleem gars yi yëpp nga xam ni suñu borom daa dogal fii la ñu xamante ak ñoom ñun ñëpp dañoo dajee si groupe bi ak sama rakk Cheikh naa si Cheikh naa moom moo ma dugal si groupe bi yàlla dogal sax xam naa mañ ci dëkk bi waaye day yëngu ci wàllum commerce xay na moo tax temps bi xat ba mënuñu fi ecc mën naa am dana fi ecc jumbul balaa dem waaw ñu rafetlu daal lool jotaay bi nga xam ne teew nañ ko fi mm. di ñaan suñu borom rek yàlla na ñuy yàgg bàyyi ñuy yàgg a teew si jotaay bi di fi fecc si Ndakaaru mm. ak mbooleem jullit yi ñu fi fecc ñëpp di ñaan lépp loo xam ni doomu aadama jaamu na ko yàlla ci bis bu tedd bi di bis bu Seydina Mamad yàlla na suñu borom fay ko si lu kawe njortam yow mboolem jullit xam naa daa mel ni yàlla daa dogal wax ju bëri moom mënewul ba xam naa. Mm, ban secret nga joxe ci bis bu tedd bi nag. ku ko mën allah xanaa ñu fas yéene rek di ñaan suñu borom lépp loo xam ni wax nañ ko ñu wax njir ngir jëmmi yàlla di ñaan képp ko xam ni def na ko suñu borom defal ci jàppandal ba ba mu jàppandi incha allah. secret bi ñuy joxe bokk na ci xam naa alam nasarax. alam nasra waaw ku yàlla man loo nga man koo bind hmm. muy seetare bu siiw bu bàyyi ko sa mañ na mooy hmm. soixante onze alam nasra soixante onze alam nasra hmm. juróom-ñaar fukk ak benn waaw xam ne bind na ko mu wër xobi déem lu mat juróom-ñaar fukk ak benn nekk mu bind ca turu latif waaw bu noppee mu def ko saafara jël xobi déem yooyu def si mu sangal ko juróom-ñaari fan incha allahu taala suñu dana ko ubbil ay buntam bu baax a baax a baax a baax. macha allah waaw jëlee nañ ko si kilifa yoo xam ne wax nañu ne suñu Mourtala mu man ma ñaaral bu daan mas waajal tukki moom la daan jëfandikoo. xam ne loolu dana ci misaal ne lépp alxuraan la ak dara bi suñu borom yi te jàpp naa ne ku composé ci amul la ci la ma jàpp ci la ma jàpp waaw. xam naa ñu barkeeloo ko rek incha allah di ñaan suñu borom ku jëfandikoo rek yàlla borom defal la barke. sëñ Fallou Mbengue loo ñaanal Tektal TV. Mbaye sëñ Fallou Mbaye loo ñaanal Tektal TV. suñu borom yóbbulee sa kaw sa kanam rek. ba képp ku ñuy tudd si ku yore wàllu micro yàlla ñun féetee ko kaw incha allah. amiin amiin mi nga ne mën na ko yàlla na leen ko defal. amiin di jaay Sidna Muhammad xam naa mam mii borom bis bi tey moom. daanañ faral sax di tudd yeneen dee ñaan ci lu mel nii waaye daa fekk ne euh, moom mi nga xam ne tey na mooy ñëpp taw. Mm. yaakaar naa suñ ko waxee duñ juum lépp lu ñuy ñaan rek tey jii mën nañ ko ñaan ci barkeem te jort naa ne lépp lu ñu ciy ñaan tamit suñu borom doon dogal loolu rafet nañ ci ñor loolu wax dëgg yàlla rafet nañ ci

baax jóg si nga bay bay ci waama mboolem ku baax jóg si nga bay bay ci waama mboolem ku baax jóg si nga bay bay ci waama noonu kun fi jëfal ay bay ni ñoom si ñoom ci bay ay bay dundin yàlla ak yonent dina def mooy Seex Maodo si noonu doy loo te moo ko jëf ñu denc. ci seen ndigal. ñu roy sunu teew ci tool bee seen i jëf. may leen di baax may leen ma bañ leen may leen di jël. dafa ñu roy déet déet déet. man ko Babacar Si Babacar ñam dénkaane woon yooyu moo di teg leen waaw da ngeen wër nga am ñu par ñu am jaar boor bi waaw bravo waay kay nam ñu def ñu mbokk yi ñu ngi ci spécial gàmmu bi ñu nekk fii ci sa camp bi ci wetu euh, kër Cheikh aw Balla fii ci Tivaouane ñu fekk fii sëñ Ndakaaru sëñ Mor Diop mu doon bisu yonent bi sallallahu alayhi bisu ki gënal ñëpp ngeen gi bindeef bu naan ngeen gi bindeef nag du ki gën ci nit ñi déedéet nit ñi ak li dul nit yépp ki ci gën gënal ci yàlla kooku bisam la ni màggal soxna ma jigéen saw yaa ngi ci bis bu màgg bu tedd bi nekk ci waañ bi di toppatoo jaam ñi li naan jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi lan nga wax ci bis bi ak loo yëg. ah salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal si teewaay bi di rafetlu bu baax teewaay bi itam ah bis bi de wax dëgg neex yàlla sant yàlla dañuy sant yàlla d'abord ndaxte taalibi seex amul lu dul gàmmu amul lu dul tiwaawoon amuñu tamit lu dul seydina muhammad sallallahu alayhi tey bu nu ñëwee taxaw nekk ci liggéey bi dugg a a génn lépp pour sang bu tedd bi la ndax moom moo jara dang-dangi moo jara sonn moo jar a weeru ci naaj bi moo jar lépp kon kenn du moom dañuy sant yàlla ba ñu yàlla boole ci ak njabootam di sant yàlla bu baax ba mu ñu defee ay taalibi Cheikh waaw. lan ngay yëg boo amee lu man ñaari at nga gëj a gàmm bis bu neex bi nga gëj ko waa namoon nañ ko torop namoon nañ ko torop ndax euh, ku ne taalibi Cheikh heure bu màggal passé bu tabaskee ba noppi rek lu muy waaj mooy gàmm ñu toog ñaari at yàlla gàmmuwuñu mm. ñu toog ñaari at gàmmuwuñu mm. toog nag ak ndigg ak ndigal mm. ndax nag taalibe lu ñu wax si taalibe da ngay ànd ak ndigal buñ la toog loo nga toog buñ la dem loo nga dem ba ñu toogee ba dégg ni ah dañuy gàmmu kontaan nañ torop kontaan gi ñu kontaan kenn ku nekk li ngay sa xol xam nga fu mu commencé moo xamoo fu mu finweer ndax nag wax dëgg neex yàlla dañoo namoon gàmmu donte doonuñu gëj ci waawoon waaye dañoo namoon gàmmu mm. dañoo namoon burdu ñuy sant yàlla ba ñu yàlla mayee ñu fekkee te li fi jaaroo ñu ñaan yàlla mu bañ fi jaarati abadan si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ torop wàllum organisation est-ce que méttiwul léeg am ku la jiite nga mag ko léeg am koo jiite mu mag la léeg nit ki gaaw mer léeg nit ki di bëgg a defar ba yàq yooyu du jafe ci waañ bi waaw waañ bi nag man dama si dañ siy sant yàlla bu baax ndaxte lu ñu naan ku jiitu euh, ni ko olof di waxee ku boot bukki xaj baw la boo jiitoo da ngay xam ni dangaa jiitu nga nekk mag nga nekk xale da ngay tëddee njaaxaanaay yàlla dogal na man vice présidente nationale laa presque ñëpp ma fi mag ñi ma fi mag bëriwul mm. mais duñu nangu ma laal dara wax dëgg neex yàlla mais man ni duma ko nangu ndax ñu si bëri ñoo ma mag li ñuy def dama koy def bu ñu toog bu ñu raxasee damay raxas lu ñu def dama koy def liggéey bi man ak ñoom ñoo koy bokk ndax li ñuy wut moom laay wut yaay vice présidente du tax ma tak ak samay tànk ci kaw du joxe samay règlement ak defar ma ni déedéet ñun ñooy bokk liggéey bi léeg-léeg nag ñi ñëpp yamuñu ndax mbooloo moo mel noonu léeg-léeg nga gis ka nga xamante ne kii dafay gaaw a énervé wu mais dangay xool nooy waxeek moom rek ndax boo ku dajalee mbooloo mu mel nii dangay am nooy doxalee ak ñoom ndax nit bu nekk ngay gis mais lu ñëw rek dañuy ànd ak sang froid dañuy ànd ak dal kenn ku nekk température boo mënti àndal bu ñu toogee ak yow di nga wàcc waaw. kan ngay gërëm ci ñu lay jàppale bu baax ak sëñ Dakar tamit lan nga koy wax. waaw sëriñ Dakar moom euh, lu ma doon wax keroog rek dañ koy bàyyi ak yàlla ak yonent bi ak sëriñ Babacar Si ndaxte ku xool fondation bu toll nii nga wër ko ba gisal ko sa bopp nekkoon fondation bi damaa taxaw lépp loo xamante ni bëgg na ko liggéeyal tarixam bi bëgg na ko liggéeyal Serigne Babacar si mu jël fondation bi dalal fo ñu ñu toll ay section yu bëri lañ ay section yu bëri lañ dem nañ ba Louga fu ne lii presque mën naa ni am nañ trente section mm. raison yi wax dëgg neex yàlla te ñëpp ñenn ñu ngi seen daayira xaaj bi fi lañ dal kon loolu sant yàlla sëriñ Ndakaar daw si dara bëggul ñu manqué dara dëkkuwaay bi gis nga fii manqué wuñu dara bañ na ko ba dafa jël toggukat lépp lu ñu soxla bëggul sax ñu dugg si waañ bi di toog naan dañuy def dara wala leneen mais du tee ñu def ko ndax nag kenn du la may lépp nga jël lépp ndax taa waaw yàlla na ko yàlla gën a kàttanal gën koo wéral ba lépp lu mu man ren bu déwénee mu man lu ko ëpp di gërëm suñu président Abdou Aziz Aw mm. jàmbaar la mm. jàmbaar xale bu ndaw la mais jàmbaar la macha allah président Abdou Aziz gërëm ñëpp gërëm naa ñëpp ndaxte du ma wax ba pare du ma wax ak moom mm. ba muy fond ba muy sos fondation bi membre bi bëriwul woon whatsapp lañ ko créé muy dox di dox di dox ba jur tey foo toll ci àdduna ba jasporaa bi am nañ fa ay représentant ci fondation xale yu jur si gennaaw mbay lu olof naan xale bu loxoom sa tey mu mën a bokk ki mag mooy Abdou Aziz Mbaw mi dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat ndax nag doomu ñay kenn du ko ñaanal rek gudd fan nga koy ñaanal lii nga xamante ni moom la sumb mu ko yeggali ko si jàmm ak salaam ndam li nga xamante ni moom la ciy séentu ak ngërëmu yàlla suñu borom ak yonente bi Serigne Babacar si yàlla matale ko si barke Seydina Mouhamed Thiès jërëjëf kooku mooy soxna ma jigéen Sow kontaan nañ kàddu yi rafet na bu baax a baax yal na yàlla def euh, guddi gii daal ñoom ci Pastef yàgg koo fekke yàgg koo tal te mont ak euh, barke bu baax a baax ak képp ku bëgg lu baax jërëjëf. jërë ngeen jërë jëf mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen ñoo ngi fii ci camp bi ci Tivaouane ci wetu quartier Cheikh Awa Balla ñëw euh, dalu sëñ Ndakaaru sëñ moor Diop grand sëriñ sëñ Mor Dieng. sëñ moor Dieng grand Serigne euh, sëñ Dakaru ak Pastef fi mu àndal ci bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi doon koo xam mooy kii gën ñëpp gënal yàlla ci ñëpp bu ñu wax gën ñëpp nag du nit ñi kese mais mbindeef la laneen lu dul nit itam moo la gën mosul tooñ kenn lorul kenn te jariñ na ñëpp kon kooku bésam bésu ñëpp la war a doon euh, ndax yërmande gi ak jikko bu rafet bi war nañ ko jàng ci bis yu mel nii bu baax a baax a baax a baax a baax kon nag euh, dañu jox kàddu gi kii di soxna Khady Diallo madame Ndiour mu yëkkati kàddu ci baatu jigéen ñépp euh, ci bis bi lan nga yëg. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani ma gannaaw bi ñu sant yàlla julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal suñu ay waajur fi ñu tëdd. di ñaanal nag sëñ ndakaaru bu baax a baax a baax ndax dañu yar si yoonu siraatal mustaxim si yoonu diine sëñ Dakar ñëw jël jigéenu senegal sax laay wax ak àddina bi yëpp teg leen si yoonu siraatal mustaxim ndax góor boo xamante ne mu ngi ne jigéen ñi bàyyi leen di taxawaalu si ay sëriñ toog seen njaboot seen tànk borom kër yi ah nan ndax gën a mën a jaamu yàlla mu dajale ñu nag di ñu yedd di ñu teg si yoon. di ñu tegtal loo xamante ne laa njaboot si yoonu siraatal mustaxim nag dawu nag daayu si. mu jël dooleem ak itteem yëpp nag def ko si jigéenu Sénégal gi yëpp nag la ko def. ñu koy sant di ko gërëm tey nag si bésu gàmmu bii di guddi Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu yàgg ko di def nag ñun ñëpp ñu tam ñu booloo suñuy doole ak suñu lu ñu mënul nag ndax mënuñu fay sañ Ndakaaru. kenn mënu ko fay kenn ku si nekk nag si jigéen mu ñu ñëwaat ñu ñëwul ak ñu bëgg ñëw ak ñu nekk si bitim réew ñëpp nag tey ji man maa waxal seen kàddu mm. ñu ngi gërëm sëñ Dakar du ko ñaanal yàlla lii mu sumb yàlla na ko continuer ñu dund ba suñu ay sitaatu set di ko dajee di ko def si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. ñu ngi koy gërëm di gërëm estafam yëpp nag mm. képp koo xam ne rek mu si groupe sëñ ndakaaru ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waxam ne am fu mu jeexatale ndax sëñ Ndakaaru ak stafam ak ay mbooloom kenn mën ko fay ba pare nag di gërëm ay mbokkam ndaxte tamit bu doolee jën ndox ay mbokkam tamit gis nañ ni ñu taxawee mais nag soxna yi tamit dañ leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax yee di ñaan yàlla njaboot gi yàlla leen barkeel yàlla bàyyi leen ak seen borom kër di waxaat mention nag spéciale les femmes de señ Ndakaaru les braves femmes ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanalaat encore une fois Sëñ Ndakaaru fi nga bëgg a yàlla ko xam yàlla na fa yàlla yegg si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu juumee nag si ma juumee si man mi matul la bu jubee si su yàlla suñu borom la maa ngi baaluwaat ak ñëpp nag di sant bu baax di gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaleykum salaam euh, jërëjëf soxna ah. waaw waaw comme bu ma nee estaf bi du ma bon bëgg di guddal mais maa ngi commencé si sëñ Dakar en même temps si sëñ Xaadim numéro un. sëñ Xaadim numéro en sëñ Xaadim numéro deux di sunu président Massata Mbodj di waxaat Abdou Khadr macha allah gis nañ sa taxawaay si biir kër gi sëñ Ngañ Mbengue gis nañ sa taxawaay sëriñ si. nga xam ne boroom xam-xam yi la ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen gërëm di gërëm mënuñu leen fay daal ñu ngi leen di gërëm nag si turu jigéenu sëñ ndakaaru yi yéen borom xam-xam yi yéen tamit ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal képp koo xam ne nag sa numéro mu ngi si biir kër ga ndax ñoom ñëpp lañ waxaale moom bu ñu xam sañoon dañuy wax ku sa tur mais nag sant nañ leen gërëm nañ leen di leen gën a ñaanal yal yàlla yàggal ànd bi si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lekk yi doy na gëléem yi rey nañ ko fi rey nañ fi ay nag ganaar yi doy na macha allah béy lépp loo xam ne yitte woon nañ ko rek tey jii rek macha allah. Mm. ñu ngi siy xalangu bon nag yal na yàlla barkeel si bëgg Seydina Muhammad. te fii gisuñu fi kenn ku mer ñëpp ñëpp a gis nga boo boo gisee sax suñu kanam yi ni ñu béylee xam ne suñu borom kër yi bàyyi ñu ni mm. suñu sëñ Dakar rek nga xam ne ñun ñu ngi sant yàlla bu baax boo mm. sant ñëpp nag di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ndax organisation métti na wala méttiwul. non méttiwul ndaxte eh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nekk si bésam defe naa ne danga si war a doon jàmbaar surtout nag bu ki ko taxawul mu sëñ Ndakaaru moom jàmbaar la bu xamul yox-yoxe bon nag ñun ji ay jigéenam duñu xam yox-yox yi nag surtout maa nag di nekk si guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ay taaliba sëñ Babacar si bon nag dañ siy daw rek ba ba bu ñu nee pare nañ rek ñu xam ne pare nañ te chaque jour dañ siy nekk incha allah rabi di santaat suñu borom bu baax a baax daal macha allah. macha kon gis nañ am na ñoo xam bu ñu def social. parfois mën na doon plateforme boo xam ne que dañ ciy amee dara. mais kii gis na ne day wutil dara pour ñëw tasaare ko ci nit yi ñu gis ci seen bopp bu baax a baax amul dara ngi sal te yàgg na ci teg ci. waaw alhamdulilah rabbi alamin foofu moom damay sawar a parce que nit bu ñu nee social ku nekk di jéem a aussi leneen moom day dindi alalam moom alalam la njëkk a jël génne ko euh, si li ma lay mën a firnde rek dafa tabax këram ba mu baax. ñu muy ne fondation moom moo jël alalam jox ñoo ñu lekk jox leen ñu naan te laaju si dara. Hmm. sëñ Dakar mi ngi faj nit ñi benn jigéen amatul stress benn jigéen dematul sëriñ si sëriñ si xam-xamam ba am ñeneen ñu si boole bon nag moom tamit ñu ngi ko si sant bu baax di ko gërëm di waat alhamdulilahi rabbi alamin daal mën ñu ko fay daal macha allah ñaanal leen ko mu yàgg fi tamit waaw incha allah yàlla dafa rek mm. mm-hmm. incha allah ngeen xamante ci lu macha allah ngeen ñaanal Tektal TV ak jàmm ji ñu yàgg fi teew situation yi déwén gënal ñuy ren mm-hmm. ba may milliard bañ a doon dara ci waaw incha allah parce que ñu ngi sant yàlla ndax nee nañ bu xëyee ba gis benn bu yokk sa dund rek nga xam ko rek mm. loolu danga nga siy sant sa borom te boo gisee famille bi toog fii tey grâce à sëñ Ndakaaru la mm. ñu moo ñu boole tey ba suñu njaboot nar nañu xamante ba suñu sët alhamdulilah rabbi alamin santaar suñu borom macha allah kontaan nañu baax kenn ci wax ah? maa ngi sant yàlla nag waaw di julli ci yonentoom bi di sant sama ñaari waajur mm. di leen ñaanalit ñu xeppee ji àjjana yaakaar ji na am ci ñoom tam pour àjjana yal na leen ko yàlla may. man nag maay seen taabu yaay waaye mérewu ma samay rak. Mm-hmm. maa ngi leen di sant nag ñoom ñëpp di leen gërëm. Mm-hmm. Ndakaaru miinu na këram tey nag. Mm-hmm. kenn gënu ko. ndax moom lu baax a ko ñor. ay nit a ko ñor. te moom lay wut ba may tuut ba tey. jomam jii nag mu fii ba samp fi këram nit ñi fekk ko fii da ko judduwaale. sant nañ ko nag gërëm nañ ko nun ñi famille man mii magam ak samay rak mm-hmm. waaw këram gii nag lépp lu fi bëgg yal na ko yàlla may yal na kër gi barkeel yal na yokku ah gurubam bii nag dama laa xamal ni la duma mm. tudd kenn mënu la cee fay kenn ñoom mm. ñëpp a baax góor mm. ñi jigéen ñi kii jigéen ñi ki ci mag ba ki ci toppaat ñépp lañ gërëm ndax seen taxawaay rafet na góor ñi ki ci jëkk ba ki ci mujj ki ci ndaw ba ki ci mag ñëpp leen gërëm ndax seen taxawaay rafet na ndax moor moom dañ koo jàppale hmm. waaw nun fanu toogit geenub golo lu ca dal borom yëg ko waaye yëg nanu nag jàppale bi ñu jàpp moor ak mbëggeel gi ñu bëgg moor nag ñulug nanu te yëngal na sun deret waaw man nag sant naa liin gërëm naa leen mënumaa wax nag hmm. waaye sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp duma beral kenn bàyyi kenn ñëpp laa gërëm amul góor amul jigéen kër gi ku fi ñëw tey saxol sedd na ndax nii ñu taxawoo moor nu def nii nun ñii ñu togg ñam yi bu moor mën a na fereti togg ñu joxe wuñu du neex waaye togg nañu joxe nañu kaar macha allah beerne nañu. gone yu góor yeeg jigéen ñëpp waa waañ wi gërëm nu ñëpp sunu xol sedd na ci ñëpp. lépp nag mënuñu koo wax ndax mënuñoo wax waaye sunu xol sedd na guy. moor nag nu ngi koy ñaanal rek lu mu bëgg ci këram gi yal na ko yàlla may. ca kaw ca kanam rek yal na ko yàlla defal. sant naa nag rakk ji topp sama ginnaaw moom mi nag moom moom bis bi tey ma di ko sant di ko gërëm. macha allah jërëjëf jom jën nu yare nag moom mi ngi koy jëfe mm. ndax nun jom rek lañ ñu yare te jom rek jërëjëf dégg ngeen li mu wax lu am solo la baax moom du weesu baax bu ko weesoo rek day doon gën te gën nag dañ ko bàyyi gën ngeen ni bindeef borom bis bi kon yàlla na ko yàlla musal ci cat rek ak làmmiñ ak musiba ak balaa ba lu baax yomb ko mu gën ci mën a continuer bu baax a baax kan soxna Maguette soxna Maguette ah bisimilah. man de mun maa wax ci mbooloo. waaye sëñ Ndakaaru jaral na ma ko. Hmm. ndax sëñ Ndakaaru. Hmm. ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. bàyyi leen bokk waaye ndey ak bàyyi leen bokk hmm. de ay doomi ndey da sang Ndakaaru hmm. mu juddoo ba tey hmm. daa yàgg am jom muy tuur tànk bu fi mu toog daa yàgg am jom lu baax ci lay dox lu baax lay wax lu baax lay jëf ñi mu bokkal ndey ñi mu bokkal baay famille bi yëpp si àddina bi yëpp lay wax moom daal yaatal la xam daal. yaatal la ak rafetal yal na ci yàgg. ci barka Seydina Mouhamed. yal na ko liggéey ndawam wallu ak barka baayam. li muy yóotu yal na ko jot. ci barka Seydina Mouhamed. sunu xol sedd guy. seen taxawaay bu rafet bi. yal na ànd bi yàgg. ca kaw dama dégg sànq nga wax euh, ñoo bokk ndey ak baay. boolaat na ñoo bokk baay am na ñoo xam ne que problème mu doomu baay yooyu dañuy am problème yooyu yow nag mu rafet ba mel na ndey ak baay doomu la mhm. te tamit am na ñoo xam ne bu ñu jekkoo tamit ndax ni ma ko mën a waxee mhm. sama yaay dafa fekk si yaayam ci këram mhm. tuuti sama yaay def muy bu amee jaboot muy góor man may taaw di jigéen yëpp ay góor la ma koy jooy naa man bu ma màggee ba am sama xew ku may taxaw ci doomu ndey. waaye suur ba samay doomu baay ma màggee ànd ak ñoom ay sama rangoñ fer. ñoo sama doomu ndey. ndax lépp rafet. lépp rafet. Mm-hmm. lu ma xale mu rafet. Mm-hmm. kenn xàmmee wuñu. Mm-hmm. ñun waa Ngéba tout famille bi yëpp. lépp nag suñu ndey ko liggéey. ndax ñoo booloo ànd. kon ku jur da booloo. kon waxal ak ñiy for as tuuti rek tax duntal seen i mbokk fuy bew. beru ji. ñooñu waxal ak ñoom ñun bokkul ci ñun waa Ngembe. Hmm. ñun ku am. ak ñàkk kenn xàmmeewu ko. Hmm. yëpp ak taalibe rek. ak mii nga xam na Cheikh Dieng. Hmm. Cheikh Dieng mii nga fa lañ jëm. ñoom ñëpp kenn xàmmeewu leen. macha ku am ak kenn xa kenn jaay am-am déedéet. taalibe rek rek ku am. kenn xamul ku ñàkk kenn xamul ñun waa Ngembe. loolu la ñuy dund ñoom. lépp sutura. sutura ak macha allah jërëjëf. Euh, ah waaw jërëjëf ana waaw aw bi kan la. Ah, ah, ah, waaw kon eh, lan ngay wax ci bis bu tedd bi. ak sëñ Ndakaaru. macha allah am mbégte kontaan ci bis bi lool. Hmm. di sant sëñ Ndakaaru trop macha allah yërëm na ma. Hmm. yiir na ma. Hmm. bëgg na ma bëgg na sama njaboot. ci lu lu ma neexee ci lay dox saa su xëyee. macha allah di kontaan ci soppeem yi. ku ku la ku la bëgg yombul. maanaam ki wax moom kii diglu mooy mbokk ma. Hmm. kon nag di leen sant di leen gërëm rek am kontaante ci ñoom bu baax. yow xanaa si nga sant wala Mbàkke. man waaw wax bu baax de. waa gis nga de. Ah, am mbégte kontaante rek macha allah ak sama njëkk yu baax yi. Hmm. ñëpp am kontaante sama rakk bu baax jee. Hmm. ñëw rek bëgg ma. ay mbokkam bëgg ma. ñëpp bëgg ma. macha allah kontaante ak mbégte rek. kon daal fi fii jàmm ju mat waaw jàmm ju mag xéewal rek kër sëriñ daal ca kaw ca kanam rek ci baax macha allah kon da ngay waxal kee comme mënul woon wax moom man moom mën naa wax waa moo jógul waaw asalaamaaleykum yéen les grandes dames Ndakaaru maa leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne si turam ak santam di jiital nuyoo bi ne si sunu alaaju baax bi Serigne Ndakaaru ndax lépp moom la te yéen jigéen ñi tamit yàqu leen si dara ndax euh, liñ naan genn golo gudd na toloo si laal rek borom yëg yëg ko ndax Ndakaaru kese bu formé woon groupam te gis si kenn jàpp leen si kon du dem kon boog lépp yéen la maa leen di ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram yàlla bàyyi leen ak sëñ Ndakaaru yàlla musal leen seytaane yàlla bu yàlla tas yaakaar yaakaar ngeen am sëñ Ndakaaru ba dugg si moom yàlla bu yàlla seen yaakaar maa ngi gërëm sëñ Dakar bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla moom góor gu yërëm jigéen la man des fois dama naan man est-ce que sama alaaj bi du lakk damay taxaw di ko yónni yoo xamante ne wóor na yàlla man sax dama si ruus yóbbante la waaw yóbbante yóbbante waaw te loolu dëgg yàlla man maa nekk moom fële sa réew te bu ko neexoon ni ah, yaa war a def li yaa def li lu ma lu jigéen war a su ma ko nee defal ma ko wóor na yàlla nii mu mel nii noonu la mel nag moom la moom noonu laa xamee di gërëm mi tamit aaw euh, buuru këram mi Xadi Ndooy ndax lépp moom la ndax Xadi Ndooy yorul ginnaaw xaaxam ndax ba yoroon ginnaaw xaaxam man su ma yéegee wàcc man dama ñëw fekk ci ko bi ma ñëwee fekk ci ko mu boot ma rogganti ma boot samay mbokk rogganti ma gàmm gi bu ñu ñëwee Xadi dafay gëmb tëx luur lépp lu muy def danaan laajo soose ay doomam da kay bàyyi mu ñëw di vacance sama kër te loolu mënoon na ni kii sama koy puus la duma duma def li wala bu ma ñëwee mu ni soose bu rëddee damay rëdd waaye ni mu mel ni noonu noonu noonu noonu la mel dinaa waxtaan ak moom loo xamante ni wóor na yàlla sama borom kër bi di ko yëg damay kafa moom comme doom yu bàjjen yal nañu yàlla fal cat bàyyi ñu sunu borom kër biiñ ñu sookorloo moom ne asamaan ak suuf njaboot di ñu yàlla boole yàlla si yàlla teg loxo si barke Seydina Mohamed barke Serigne Babacar Sy waaw maa ngi sant tamit waa waa waa ñu judd si groupe kii sëñ Mbaye ndax dëgg yàlla tey gis nañ seen taxawaay bi ndax ñun bu ñu ñëwaan dañ daan kii tey dëgg yàlla moom dugguñu si waañ bi benn yoon yàlla na leen sëñ Babacar si fayal boppam. waa di gërëm tamit mama Fanta tamit wax dëgg yàlla di gërëm. Euh, boo limee daal da ngay jum jigéen ñi ne si groupe bi yëpp gërëm naa leen wax dëgg yàlla damaa mënul wax nag te sama xol fees baat bi xaw a dee ak ak léegi naa bàyyi ajaa bi àggal. <laughs> macha allah di leen wax daal ne problème moom yàlla na ci yàlla musal mais juboo bu dëggu man ñaari jigéen yu juboowul moom ma gënal ñuy ñuy tirise de ñuy tirise laa daa kóorul de comme jàmm nii lay mel ku suur day desal. asalaamaaleykum mbooloo mi. ñu ngi leen nuyu bu baax si seen tur ak seen sant di jiital ci nuyoo bi Serigne Dakar mais ak Soxna Fanta su ma ne sëriñ Dakar moom nuyuwaale naa góor ñëpp. Hmm. ma ne Soxna Fanta nuyu naa jigéen ñëpp. Hmm. di kontaan bu baax a baax. Hmm. di joxe samay cant ak samay ngërëm yoo xam ne sañu ma ko woon a bañ wax su ma toogee fii ñu wax ba affaire bi tas se waxuma day mel ni man kon du ma gor. ñii dañ maa defal loo xam ne mënu ma leen koo fay man maa mujj dugg ci groupe bi booy seet. groupe maa ci gan xam naa bu amee ñu toppit ci bariwul ndax xam naa tey jii laa mas a gis ñu bëri ci naa leen mas a gis mm. waaye dañ ma lebal teraanga yoo xam ne nii jàpp ma ne ci kaw suuf man dinaa leen ko mën fay lépp Serigne Dakar moo ko waral ak soxna Fanta mi wóor jigéen ñi mm. sama sët dafa feebar mm-hmm. ma jaaxle ci ba mu juddoo ba bis bi desi laa commencé di dem hôpital ñuy dem hôpital di dem hôpital ba xale bi am na daanaka at gisuñu benn bunt mm. dañoo mujj bi ñu demee hôpital ñu ne nenu di ngeen indi téeméeri junni ak juróom benn fukk ñu doog koo defar ñu doog ko opeere te du tax ordonnance ñoom seenee bokk si. ñu am ak jaaxle loolu nag sëriñ Dakar mais ba mu ko yëgee da cee taxaw ba mel ni moom jarbaatam joo xamante ni rakkam ki ne jéeg mi moo ko jur wala wala wala wala euh, bint ki doon wax mu jël ko ne ma nañ nañ ko nañ ko nañ ko fekk na ko fekk si njaareem ci fanta yóbbu ci fanta. ñu ne kan mooy fanta mu ne leen nañ dem ci fanta tey tey mu nañ fa fanaan ñu daal di takk takk seen dem ci fanta fanta keroog la ma sa gis sama doom ji sama doom ji keroog la ko ma sa gis. Mm-hmm. Fanta jël xale bi jox ko néeg jox ko lal dundam dara manqué wul. mu nekk lu rëy ci man loo xamante ne ni bu bu ci sama xel mi demee sax sama xol bi day fees ba nga xam ne damay xam ne koo xamul ma soo koo gis nan nga koy mën a taxawoo nii. xale bi ñu opéré ko Fanta mi xaw na cee sax ñàkk place am ci taxawagum taxaw sama sët bi. ñu faj ko ba opéré ko. ba lépp lu ci war ñu def ko ci ba def analyse ak lépp ñu def ko ci ca lépp Serigne Dakar Fanta mii moo ko waral moo tax ma ne Serigne Dakar moo wàllu yor wàllu góor ñëpp mm. ki yor wàllu jigéen mm. ma leen di sant bu baax a baax di kontaan ci ñoom bu baax a baax cant goo xam ne am na tàmbali waaye amul yem Serigne Dakar kër bu mu jógee dëkk ba nga xam dëkk mu jógee fa di tuxu si fii mm. dafa mel ni dara dafa xew ndax Serigne Dakar njëriñ lu mu am ci nit ñi ca bu neexee yàlla sama kàddu àgg ay magam a nii xam nañu baax ci li may wax dafa nekk triste ci kaw nit ñi ba nga xamante nii lu metti la ci xolam nit ñi ndax njariñ lu mu ñu amal hmm. kon Serigne Ndakaaru ñu ngi lay sant di sant sa fami hmm. ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu yàlla tas yaakaar sa yoon wi nga aw yàlla na ko suñu borom yàlla àggale ci kàttanam ak dooleem di sant di groupe góor ñi di sant groupe jigéen ñi man kontaan naa ci ñëpp miiruma nit ñi ba ma leen lim waaye kon benn par benn laa koy wax sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp lii bu ñu waxan ba pare ma dem waxuma ko damay feebar parce que sëñ kontaan naa bu baax sëriñ ba feex na bu baax feex na bu baax mi ngi dox soxlaam mi ngi dox soxlaam mi ngi dox ak tànkaam dem asu njaareem sax lañ koy wax ndax ndax njaareem gi neena ci Fanta bi mu xàmmee ci Fanta la xàmmee asu njaareem lañ koy wax waaw baax na nekk leen ci jàmm bu baax kontaan nañ ci yéen bu baax jërëjëf euh, sëñ Abdou Aziz euh, Aw euh, bismillah jigéen ñi gis nañ ñoom ñëpp nangu nañ sa njàmbaar ba ñëpp sawar nga wax nga taayal a wax ñu bëgg nga yëkkati ci kàddu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin saydina wa maulana muhammadin rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla yàlla na yàlla may ñu ñu fekkee gàmmu ay at yu bare bare bari bari bari bari kontaan nañu lool bëkk nañu lool xam naa témoignage bi may def si sama kilifa gi di Serigne Ndakaaru du sama kàddu kàddu sëriñ Habib Sy bu maam si Sy baax la yónnee naa ko vocal bi mu dégg ko sëriñ Habib moo wax ni Serigne Ndakaaru sëriñ Habib doomu si Sy baax mooy wax ni mu ngi lay sant di la gërëm si sa taxawaay yëg na li nga defal njabootam te xolam sedd na si lool tey buñ ko yónnee vidéo yi yàlla xam na ni lu ne wax na ko dafa mujj jël dog yónnee ñu ko ni ni dog bi defal leen ko spécial pour Serigne Ndakaaru yàlla xam na ko moom lañ doon def tey si suba ci imam ratib bu Kër Massar di imam Baye Rawxaan ji jiite woon ko doon ko def yëpp pour moom mii moom mii nag ku ñu yéem la ñun am na ku ma wax ne ma sëriñ Ndakaaru ndax du malaaka yàlla xam na ko ndax baax ndax yiw si ak woyof ñun loolu lañ xam si moom kuy woyof la te kilifa bu mënoon yëkkati boppam wàccee boppam woyof lool lépp loo xamante ni ñu ngi koy def si kër gi bala ñu naan nangam sëñ Ndakaaru def na ko toog di xaar yàlla xam na ko waaye laataa may xuus gën a xuus si moom nag damay sant bu baax nag kii nga xam ni soxna Khady Diallo bii nga xam ne mooy suñu trésorier fondation xale ju si Grand Mbay bu Tëngéej tey bu ñu xamanteek sëriñ Ndakaaru si moom mii la jaare moo ñu booleeg sëriñ Ndakaaru def si taxawaay yu am solo ba tey jii lii yëpp jàppandi wax dëgg yàlla damay wax ni euh, yéen ñi nga xam ni ñu ak yéen ñoo koy bokk sëriñ Ndakaaru suñu Serigne Ndakaaru la Serigne Dakaru Serigne Dakaru international la parce que tey jii ñëpp a koy bége teraanga yi muy def moo tax tey sama téléphone bi ñii nekk si kaw Europe lañ jóge yàlla xam na ni ñëw ne ma benn soxla rek lañu am gàmmu gi indi nañu naam mais Serigne Dakaru la ñu bëgg a gis ñu xool ndax kooku moom mbaaxam gii ndax mbaax dafa raar si réew mi mbaaxam gii ndax moom ki koy def moom ku mu doon yàlla xam ne loolu moo leen indi ñu ngi si kaw kon nag man dama koy wax ne ko moom bu melul nii rek tooñ deret a ko tooñ ndax kuñ ne Serigne Ndakaaru moom mooy sa turandoo ku xam nu mu taxawee woon si Ndakaaru si yaatal si boole ñëpp di benn tabaarakallaahu nii rek la turandoom mën a mel lool si sëriñ Ndakaaru si dalal bi mu ñu dalal fii si biir këram ñëw nañu fi ngeen dal bu leen def seen boppu ay gan waaye nag di sant bu baax ay soxnaam bu yëf yombee tabaarakallaahu dañu ko am na ñu nekk si ginnaaw sax ndax dañuy olof day wax ni euh, tubaab day wax ni chaque grand homme y a une grande dame derrière kon sox ñaari soxnaam yii. dañ leen di sant bu baax di leen gërëm. yombalal nañ ñun lépp lépp lépp lépp lu ñu bëgg lépp parce que damay wax ni sëriñ Ndakaaru mënoon na am nu mu mel ñoom ñu amoon beneen kii waaye wallaahi asim lépp loo xamante ne bëgg nañu ko ak lépp lu mën a doon ñoom ñooñu ñu si ëpp Pastef wallaahi asim kon nag bëgg nañu bu baax a baax a baax a baax kontaan nañu bu baax sama xol dafa dafa fees parce que audio bi ma Serigne Habib yónnee wax aussi Serigne Ndakaaru wallahi azim ku xam suñu kilifa wax aussi Serigne Ndakaaru si na ngeen ko ñaanal si na ngeen wàccee kaamil ngir ngeen ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi ngay ñaanal ko teraangaam sax ilaa yow mi din beneen bi nag fi ma koy tëjee mooy jigéen ñu tedd ñii yii sama yaay yu tedd yii lii moo tax sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu doon wax ni man jigéen ñi laa faral jigéen ñi ñooy kirij nee nañ jigéen lépp lu mu bëgg mu dox mu dox kon nag waxu sëñ Babacar bi rek moo ñëwaat salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu kontaan nañ lool di wax ni si seen biir si yéen la ñu bokk bis ni ko tey incha allahu rabbi si soppey Serigne ndakaaru yi la ñu bokk ànd koog yéen lu ngeen xewleeti incha allahu yéen ak fondation bi yéen koy defandoo incha allahu rabbi salaamualeykum wa rahmatullah kontaan nañu bu baax jërëjëf yàlla yàlla barkeel baax a baax sëñ Baate sëñ Pathé da nga ciy yëkkatiwaati kan. Oh, que a seede sëñ Dakar sax. waaw sëñ Dakar. sëñ Pathé ndax sëñ Dakar moom. fii ci kër gi dinaa ci mën a waxe mais bu doon feneen du ma wax. ndax ay soxnaam a ngi toog ay magam a ngee toog. ay doomi baayam a ngi toog. waa jambaalo yëpp a ngi toog. kon man na ma wax ci moom. ndax sëñ Dakar moom jambaalo xam nañ ni lu waaye di wax ci moom. bu ma koy dégg di ko wax. Hmm. loo wax ci man bu ko sëñ ndakaaru yi dégg di ko wax te tey yal na yéex tey bu faatoon ma miraas ko tey man bu ma faatoon sëñ ndakaaru miraas ma te soxnaam see ak soxnaam sii xam nañ ci dara ndax yaakaar naa ne kër gi bi ma koy jënd nit xamu ko nit tegu ko bët sëñ Dakar bu ma ko waxee mun ma yal naa fekk ay néegi ñax yow soose man nga cee seede dara ma jaaxle loolu nag di jul guddi di ñaan yàlla yal nag ma defal ndam. ndax euh, ñun ay kaw kaw lañu na leer boobu ñëpp a ngi doon xool waaye alhamdulilahi rabbil alamina sëñ Dakar social bi ngeen di wax musaa ñaa bi jaay or avant muy tukki jox na ma fi un million bu sëñ Dakar moom duggul ci loxo sëñ Dakar dama koy mayeloo di ko mayeloo ba mu jeex mi ngi nii taxaw Moussa Niang moo ko def damay tudd ay tur dañ daan ànd am suñuy xarit yu am ngénte moom Dakar mun ma sa waay kii ñoo ko tane de. wala ngay ceetal mun ma bàyyil ma jéem a ñafe lal nga ñafe mat laa ak i ma nga ne di ma dégg ndax man fi ne nekk dara buratu sama bët social bi du tey de du tey te suñu ànd maak moom du tey du démb du bëri ki démb jalum muus la boo ko jeqee gis ci dara mais ay jabaram it yàquñ ci dara ndax parce que mënoon nañ ciy xajamal sax ndakaaru nekku fi wala nii ku ko jaban sax da nga ñaaw waaye dañ koo yombalal ba kee sax léeg dama naa ñaari sirmaxa yi xaaral beneen bi day wuy téléphone fee alhamdulilah bi ma mujjee yóbbante un million cinq cent matagul fekk fan ak juróom kon doyloo na ma ndax lu toll nii ku ko jox yërul tinul xoolul am na confiance yow ndax man wóoluwuma ko noonu moom moo tax seen ànd bii xalaat naa ne ja dina am ndam dinañ ci am ndam parce que kera ba muy dem itali yaayam da ko ni jëndal ma paquetu suukar maa ngi moom ci oto bi mu jox ko man ko waa bees merci la la xam nga bees lañ koy man ko bees doo ko ñaanal mun ma kii bu ma ko ñaanalee day àgg Ndakaaro waaye bu demul Italie gi muy jëm demat bàyyi tarixa Cheikh yaayam mi ngi ci suuf tey moo ma ko wax yaayam te nit ci ñaanu waajur lay rawante bu ñaxante mu nekk Italie di dimbali ñu am problème mu kayit ak wéradéeg ñeent tëj yëpp maa ci xam dana ay pousse pousse nga sama kër fi ni yoo xamante ne dañ koy maye ay toni ceeb lañ ma doon yóbbante yoo xamante ni ñi ma ko jox xaw ma leen mère Fanta mii man ngeen cee seede yéen ñii ak soxnaam sële toni ceeb yoo xamante ni xaw ma ñi ko jël de ci magasin bi rek laa ko bàyyi jox koy tur yàlla seede leen ma yox ni te bàmmeel laa tiim sëñ Dakar moom man yéen la daraam di bépp man daraam du ma bett bu nga ko waxee woon feneen nag du ma wax mais bu ay mbokkam taxawee xam nga bu doon ay nëxas naxasala ki ngunum ngunum du ma wax mais mbokk famille yaa ngi taxaw te Ndakaaru lu ma ci wax mbokk du ko dindi sant naa ko nag man gërëm naa ko sant naa naay soxnaam gërëm naa ko Ndakaaru sant naa ko gërëm naa ko parce que tukki taxul mu suppeeku boo ko woo jotoo ko woo ma wax la fi mu ne yal na ko yàlla yokk may ko njaboot gu ko teel a noppal te saxal nu ci lislaam nag ak dëgg ndax lu lislaam la lu dëgg la lu ko ànd ba day yàqu ndakaaru mi royukaay la de te yaayam wax na ci moom ma dégg ma toog papaam nag moom fekkewu ma mais yaayam wax na ci moom ma dégg jaxaran xam nga kuy tukki ci waaye su jafe yi mun la bu bu àggul fa mu jëm ma xàcc tarixa cheikh maa ngi ci oto bi ndakaaroo ngi ci bi mu demee bay jël avion bi mu jël photo yi ñaari sëñ Babacar si def ci bu ci ne daal ne ma sawaay bu ma la woo boo ma boo ma wuyu bu ma bu ma la woo fii ginnaaw suba du Italie ma bàyyi sëñ Babacar si ana ndakaaroo moo ko wax moo tax daraam bettu ma fi nit ñi daraam bettu ma ndax ku say waajur ñaanal ngay def lu baax baax balub teg si la rek boo ko dóoree ci miir bu ñëw ci yow ndax ñun ndooy lañ sant man du ma géwal ndooy laa sant man du ma jaamu kenn waaye ndakaaru mii day dem téeralagul de te lu leer laa leen wax te mi ngi ci kanam te ku ci dugg gis ci la naqari woo ma ni ma ndakaaroo ma def lu ma naqari kenn du ko ci gis te ku ci dugg ren bëgg déwén yokku woo bàyyil ndax war amu ci caaxaan amu ci naxante amu ci fii du groupe boo xëyante dañuy arnaaj amu fii sa xarit bee mi ngi may laaj benn puus-puus. man ko benn nga kër ga. waaw benn bu fi amuloon. Mm-hmm. dañ la naan mère Fanta mi jëlal numéro am dina jox benn wala keneen fi dañ lay jox benn. kon kooku xam ga amul lenn lu ñuy nëbbu. amul lenn lu ñuy nëbbu. Mm-hmm. te bu ginnaaw subaa bu fo ñëwee ma jox ko benn. bu fa amuloon ñu boole laa ku la jox xaalis mu jëndal ko benn. kon bii groupe du groupe mu naxante du dara. Mm-hmm. li soxna see wax rek ci sët bi. Hmm. firndeel na ko léegi amul numéro bu mën a jàllale nii ci kaw pour ku soxlaa dugg te mu dugg ci benn numéro rek. Euh, ci groupe bi. waaw xanaa ñu joxe numéro mère Fanta. waa joxel. Hmm. Ah, ah. waaw. waa joxel. numéro Abdou Khadim mbaa kii Khadim euh, euh, trois. double 0 39. double 0 39. 329. 329. 04. 04. 03. 03. 249. 249. 77. 77. 532. 532. 68. 68. 58. 58 mi noonu ñu bind ñaar yëpp. parce que kuy seet Ndakaaru. waaw boo ko gisul. bu ma la rawee ñàkk nga. jeex na booy nelaw nag nu def. booy seet Ndakaaru. waroon koo rindi boo ma gisee boo ma rindiwul ñàkk nga bu la waroon a jox million boo ko gisul téye ma Sénégal yëpp nag laa wax kum ci ameel bor wala mu tooñoon la boo ma gisee téye ma yoreel na ma deux millions de te gis bu subaa boo ñëwee jox la ko <laughs> ok yal na barke li mooy ànd ko ànd euh, dëgg da cee baax ak Pastef ak baax a baax kontaan ah Ah. sëñ Matar Dieng di magu sëñ Ndakaaru di am seede yu mën a seede ci jëmm ji ak bés bi. waaw ah, asalaamaaleykum asalaamaaleykum yéen mbooloo mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal leen jàmm di leen nuyu ci baat bi gën a tedd ci baat yi muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ah, sëñ Ndakaaru mën naa cee seede mënu ma seede hmm. ndax may taawu baayam te yaayam moo a yar di léppam wóor na ma wóoral yàlla ni dëgg la paati mi toox léegi sama jarbaat la sama lépp la ñoom ñaar ak man boole naan mbaa boole tuur ak soxna yi kon yàlla def def na ci li mu def man am naa ay rakk yeneen yu ma bokkal benn baay waaye moom di ci dama sës rëkk ci man te du ma rëkk yàlla mi ma tiim ak yonent bi xam na ni man du ma waxee sama bakkan ñi ma xam ñëpp kër maam Alpha si laa deman nii moo tax ma guddee ndax damaa waxan ni ma dibarki démb bu na ñëw kër ga da mbaa ko yitee lu ma li ma laajan ma yët ko ko mu noon ma na nga del siwaat gàmmu gi monsieur moo taxan ma dem ci waaye kon na ngeen ci suba ba léegi maa ngi yendu fii waaye sëñ Ndakaaru bu yëgee ni soxla naa dara fa mu nekk ca bitim réew yónnee na ma ko léegi-léegi mu yónnee ma sax ne ma damaa dégg nangam te wàlla mi ma ti xam ne man waxuma ko ay soxnaam ñoo koy waxaay man du man ndax man duma ma wax kenn dara yàlla dimbalee na ma loolu jaboot naa te yàlla dimbalee na ma macha allah yàlla man li ma fëccu ma waaye sëñ Ndakaaru moom man mi bokk ak moom benn baay di taawu baayam moo ma gën moo gën ñeneen man mi bokk ak moom benn baay yaayam yor ma quatre-vingt-cinq lay soo xam sama yaay moo ma gën moo gën kaneen yaa baax rek nangu barke alxuraanul karim ba muy dawalal sëñ Ndakaaru soxna si mu jëkk bëgg a takk man maa ko doo ko takk mu bëgg a takkaat kaneen man ko doo ko takk mu bëgg a takkaat kaneen man ko doo ko takk. Ah, tere rek nga fi nekk tere rek waaw li tax may tere mooy bàyyam bu fi nekkan lam ko daa tere laa koy tere bi ma ko takkloo muy xaddi mi fi nekk di aawo bi. Mm. gisu ci defoon macha allah. mu hmm. ngi ñu ko takk soose mii. wóor na jëm Rasulullaay soose mii ay ak i bokkam man munu ma leen a fay ndax dañuy nekk ci état li di ma woo di ma dëggee di ma wax dara di ma defal leen ko ñu topp ñu topp ko jusqu'au bout ndax man loo ma jox du ma du ma la yàqal dërëm. Hmm. soxlaa lu ma kenn dërëm lu ma leew rek laay dunde waaye li wër te wóor ku mu gënul kenn kenn ah néew ma am na ñu mel ni amul ñu mel ni ñoom de waaye ku mel ni moom de amul ci social. Hmm. ci dimbalante. ci sama kër baay. ak rafetal ak hmm. yëg ñëpp. Hmm. man mi yàlla dimbali na ma mboolem yi doomi soxna yi ci senegal yëpp sama do samay mbokk lañu damay dem Touba moom i ci boppam mooy yónni paate ne ko yóbbul ma sama grand Touba moo ma yóbbu Touba ñibbi waat Dakar ba bis bi may ñibbi si ma waat ko ni ko damay ñibbi mu dawal oto jël si ma. te joxewu ma ñaar dërëm kooku nag bu la ko sa rakk bu ko sa rakk tee fee foo toll war nga koy sant ndax kenn ku nekk am nga rakk joo xam ni am nay milliards te deful lu kon macha allah soxna Fanta tam ñu ngi koy gërëm lu baax gi gërëm mboolem ku bokk ci groupe soppe soppee sëñ wi yi Khady Diallo seen naa ko fi nuyoo gunu waaye dégg toujours CDM dégg naa ko kon kenn ku ci nekk sa seede saa boo seedee maa ngi ci biir bu ma waxee bu ma waxul liir naa sa vocal wa xam naa la nga wax dégg naa la nga wax waaye sëñ Ndakaaru kenn moom yàlla na ko yàlla lafal cat lafal ko ñim àndal boole ko ñëpp ku feebar ak feebar boo mën a feebar yàlla na ko yàlla teggi ba ordonnance du sukkuwut fenn ndax euh, lii mu mooy dimbalee te yàlla tax ndax nit ñi man samay doom ay docteur far ay docteur lañu waaye li wér te wóor dañuy ñëw kër ga ni ma ma seet la man ko bu ma kenn seet man aw ma benn jàngoro macha allah yàlla ma ko dimbalee nag waaye du dara malum yàlla la waaye garabi wolof yii laay jël ba léegi man moom laay jël docteur nag docteur tubaab yi fanta ñoom ñooy opéré waaye dañuy dañuy dànk nag garab yi de garab yi ni joxe yëpp day dànk waaye faj moom boo ko bëggee di nga dellu ci aaye alxuraan mbaa nga dellu ci garab mu faj la nga wér yal na yàlla dimbali leen na seen groupe bi yal na yàlla def lépp di taw féex yal na ko yàlla jëme kanam yal na yàlla boole ñëpp ni mu ni yal na ko yàlla defal ñëpp ànd xam naa ne am na ñu bari mosu ñoo gisee déggante rek la ñuy def waaye yal na yàlla def jàmm man de lépp lu ci waaye am man nag dëkk ma koy nekk ci rajo bi ci ci wax waaye jàngoro ci waaye su ma ko mënta faj am na ko ko mën a faj ndakaaru may magam dëgg la am na xam-xam yàlla may na ko kàggug mag ña am na ca waaye nañ li wérte wóor kenn ku nekk ak la la yàlla may yàlla na yàlla wéral doomu aadama yëpp nag na ngeen moytu kim masi daal ak tànk ginaari élevage ak laaf yéen dinañ ko moytu. waaw ah, yooyu loolu daal képp ku ko moytu. ko amul borom kër wutil borom kër yàlla deful dara muy hasard. sëy du bànneex du taar jaamu yàlla la nan ànd jaamu yàlla ay mili liggéeyum day duy milliard du kër gu rafet liggéeyum day mooy ñu gasal la kam bëgg la caa dugal mbaa ñu yóbbu la police yàlla jëlee la ci loolu mooy liggéeyum day yàlla yàlla defal ñëpp jàmm nag na ma balaax jërë ngeen jëf waaw jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi kon bi neex na bu baax a baax a baax euh, sëñ moom li fi nit ñi wax rafet na trop yàlla na yàlla barke waaw. damaa gisul woon ndax maa moom ñoo bokk ndey ñoo maase. lu gàtt gàtt nag moom ma jëkk a juddu. waaye moo ma jëkk a juddu. waaye li wérte wóor. Hmm. sunu néegum ndey. Hmm. muy xaddi si léegi mbéy ak hmm. amu ci xej ak seen. ba bi ma toogee ba yàgg mangoom ñuy jënd kilo juróom-benn fukk xaaruma mu woo ma téléphone xaaruma dara dama koo jaay mango ji ba woo ko ni ko jaay naa tant de kilo ci pomme mango ji xaalis baa ngi nii maa ngi la koy indil. loolu lépp nag mu bàyyi maak samay jaar baat bàyyi maag lépp samay rakk moom ñi ma bokkal xaddisil yëpp wax dëgg yàlla déggal nañ ma am naa yeneen nag waaye waa kër xaddisil moom dina bokk ndey bokk bàyyi déggal nañ ma ci gépp war lu ma nekk suba ba jant ba soo ñi nga ca muy ndey muy moom muy kaneen a ci yem waaw ñëpp a yem waaw yal na yàlla defal ñëpp jàmm jërë ngeen jëf jërëjëf kon gërëm nañ équipe technique bi ñu àndaloon moom it docteur Wade bu Casamance Baye Massamba Diop gërëm nañ ko Petit Sow gërëm nañ ko Mame Thierno Badiane gërëm nañ ko Modou Diallo gërëm nañ ko Soxna May Diop ci réalisation bi Tektal TV sëñ Dakaru ñëpp wax nañ mbaaxam kon yàlla ko yàlla doole kattan doole ko wér ak man ak euh, musal ko ci cat ak làmmiñ ba lu baax li mu bëgg lépp mu yomb ko bu baax a baax Euh, sëñ Babacar Sy Mansour yàlla yàggal ko fi loolu te ànd ko wér sëñ a Mbacké yàlla yàggal ko fi loolu te ànd ko wér euh, xale yi juddu ci ginnaaw mbay fondation yi ak euh, ànd def te yàlla tax ñëpp yàlla barke leen dafa leen kii mooy ko tedd ki sëñ Babacar Sy ah loo ci Malick ñi ngi siyaar ñëpp di rafetlu teewaay bi di am kontaan ak mbégte ci seexal xalifa man duma si doyal liggéey ba fii ba Ciskala bu. waaw du ma toog du ma lekk du ma naan. doo lekk doo naan. liggéey sëriñ Babacar Si rek moo ma ñor. ba keroog may sàng ak suuf. samay waaju si leen ma si leen ma nàmbatal si ma doqatal. est-ce que si sëñ Babacar. Mm-hmm. ma judd fekk mm-hmm. mm-hmm. mu jël ma tuddee ma sëñ Mansour. kon lu ma nekkul lu taalibe Seex rek tariixa Seex rek. kon wàcc naa man tari tariixa Seex rek moo ma ñor. ak bëgg sëñ Babacar. xam am na ñoo xam ne ñu nga bëgg làmb ñii bëgg fubal ñii bëgg way yow nga bëgg sëñ Babacar. bëgg ku baax moom baax rek la ñuy xool ci yow. moo ma intéressé sëñ Babacar rek moo ma ñor. lépp lu sëñ Babacar lu ñu woowee sëñ Babacar. man maa Gueye maa nga sa biir. ñu nekk fondation xale si ginnaaw mbay. Hmm. ma gis ko Abdou Aziz Aw le président ñu koy nuyu à passage. mu hmm. doon ko si net bi depuis daaw. ci laa ko woowee ni ko lépp luy sëñ Babacar man maa nga sax hmm. depuis anglais buri ba léegi ñu ngi fi di liggéeyal gan ñi ñëw ñu leen servi ñuy lekk ñu mm. ñu toog muñ ngi sëñ ngir jëmmi sëñ Babacar moo ñuy fay mm. lépp daal tamit si loxo xalifa mm. si barke sëñ Babacar yéen tamit ñu ngi kontaan si yéen képp ku fi taxaw rek ñu ngi kontaan ak wér di la gërëm di la sant suñu yaay wasalaam jërëjëf sëñ Babacar euh, xaritu soxna Faat Jaxate bëgg sëñ Babacar Dame Diop bëgg sëñ Babacar Nogoy jóob bëgg sëñ Babacar Aydara Diop bëgg sëñ Babacar ak Marème Jaxate bëgg sëñ Babacar Fat Jaxate bu Pamor Jaxate moom ibaadu la euh, Aydara Diop Bas Diop euh, Cheikh Ndiaye Diop ñoom ñëpp ñu ngi ci teewoon bëgg nañ sëñ Babacar bu baax a baax bàjjan Nogoy Diop yàlla na fi yàgg lool tànd ko wér sëñ Muudu Diop soxna Bintu Sey soxna Marème Diop euh, ku ñàkk bay rek ku ma nar a fat Taala Diop Mbay Diop ca Touba Euh, waa Kër Baye mbay ah waa Kër Baye Mbaye bàyyiwun bàyyiwun kenn daal ci ñi bëgg sëñ kër bëgg El Hadj Malick bëgg lu baax xam fii teewoon samay mag a ngi fi. moom na ñuy fee ca course ba. Ah, ñoom Aydara Diop. Mhm. Bas Diop Cheikh Ndiaye Diop Taaxa Diop ma nga ca états uni ak Bousra ak ñoom euh, maire aliment ak ñoom ñëpp daal gërëm nañ. li fi yëg wax nii. Euh, ba di nga ñaan cat tey ci guddi gi parce que mbax gi la waxal ni ëpp na de. te xam naa li ñu denc ëpp. xam nga Cheikh cat. dañ koy wax waaye gis nga uh, cat munu jàpp kii ñuqi di ko jox ci gor ñi kii ñuqi di ko jox jullit maanaam kooku cat du ko jàpp cat ki muy jàpp mooy dama leen wax ne léeg-léeg nga gis ko am alal alal ji nga yor doo ko moom mm. alal jee moom mm. wala alal ji ko ko moom a ngi taxaw muy ndono yi même ci bëggee baax doo mën a baax mm. waaye alal nag yow soo ko moomee da ngay fekk gor su sonn gor soo xam ne amul dépasse gor feebar amul ordonnance nga yëkkati sa alal faj ko yaa moom ak yàlla moo koy xam bu dee ci wàllu xam-xam bi li nga xamee ne da nga koo jëlee ci mag ñi te yàlla may la ko mag ñi jox la ko wóolu la ko jox la ko ni la dimbalil yi nga war a tourné waat dimbali ci soo jëlee enquête Sénégal boo gisee fi ne sëriñ su bari Sénégal man rek maa ko ñemee wax nag hmm. laajuma dara laajoo dara laajuma kenn dara lu soxla bari bari hmm. lu aajo bëri bari bari lu feebar rëy rëy ñeme naa ci man ndax du laaj dara yàlla laay àndal hmm. ak yonent bi hmm. ak li mag ñi bàyyi woon ca laay nekk du ma ko yokk duma ma ko wàññi boo gisee nag gune yi léegi da ngay dégg ñu naa la sëriñ diw laaj na ma trois cent mille laaj na ma deux cent mille laaj na ma cinq cent mille waaye la ma doon wax ba léegi la ma doon faju ba léegi fajuwul lu tax mooy sëriñ baayam da ci doon laaj ñeent fukki dërëm wala mu ci laaj juróom-ñaar fukki dërëm ak dërëm wala mu ci laaj ñeenti téeméer moo gën a seer wala juróom-ñaar téeméer wala ginaar moo ci gën a seer mm. ma laaj ci béy baaw nag su ma ci ñaanee du ma dara du càmm yërmande daal bu ci manqué rek baax jeex na maanaam booti yàlla mi nga xamee ne yow man damay fay ko cinq cent mille ci yow ñaan yàlla mm. yàlla du la may mm. waaye su ma la bàyyee yàlla gën laa ñeewante yàlla yàlla ne la jàmm bii ngay ñeewante maa la ko gën a ñeewante soo ñaanee boo dagan xobi ngeer jox ko mu wér boo demee Cheikh yow ñu ngi lay sant baax di sant nag cameraman non yow yéen ñi denc ko damay ñëwul dama lay jël tegtal uniquement dama koy denc voilà bu soobee yàlla incha allah hmm. am na yu Cheikh yu bari nekk du ma ko wax nag damay yuug ndax gars yi ku ñu xam fa nga jëm doo yegg waaye lu bare ngi fi nag lu bare ngi fi waaw fi ne ku ma bëgg a nandal mën naa laa nandal ndax mag ñee ma nandal mag ñee la nandal waaw loolu mais Tektal TV moom moom moom gërëm nañ la ci baaxaay gi kontaan naa la Cheikh kontaan naa Cheikh hmm. maa ngi lay ñaanal te ñaan gi dama koy continuer nee naa la képp ku ma soxla hmm. ci télé waaw yow na la na la woo boo ma woo ne ma si ne ma sëñ Ndakaaru ñëwal ma ñëw lijjanti wu ma nag dara lu fay nekk nangam ak nangam lijjanti ba yow waxal ak moom bu ngeen d'accord nga ne ma sëñ Ndakaaru demal ku ma soxla ñëw na ñëw ci yow moo baax lu ne la may defal àddina li ci biir mënu ma wax lu rafet rek pour moom mën la ci biir dégg nga mbubu mu gàmm mu ne mi ngi noonu mi ngi fii boo pare waaw jasneer bi mi ngi fii boo pare léegi ñu jox la ko ñu dem reer ñu jox la sa jasneer incha allah léegi nag gars yi bëgg naa docteur musul dem docteur moom dama bëgg ñu dem Europe léegi nag maa ngi woo sama frère Cheikh Dieng yónnee na ma yónnee na ma nag moo moom kër gi yónnee na ma nag euh, macha allah euh, di ko wax nag waaw ak Abdou Khadir hmm. moom it la mooy coordonné groupe bi hmm. di def lépp ta li gën a neex la yow Abdou Khadir mooy mooy nit am feebar mu ne ma sëñ Ndakaaru nit woo na la jotu la waaye nangam ak nangam nangam la am ma ne ko moo yow defal nangam ak nangam rek mm-hmm. mu ne ma ah man kay dama doon déglu ndigal ma ne ko may naa leen ndigal mm-hmm. koo jox mbir mu faju lii ay mag laa ko jële mu leer nañ ma jox la ko mm-hmm. tey boo xoolee xaatimu Souleymane un million la ci gars yi laaj génne naa ko ci TikTok bi foto ko dama koo côté benn waay def ca nii génne kii kii xam na li may wax booy pël bu rafete ngi moom yónnee na ma nag musuma gis keroog bi mu yónnee bi la ma musa gis waxal allah man moom damay nuyoo rek damaa kontaan di gërëm ñëpp ñëpp ma kenn di ñaanal ñëpp. Hmm. damaa kontaan moo la ma wax. damaa kontaan sa tur dëggantaan lan la. man la Mouhamed Sow laa tudd waaye sëñ Dakar moomu tuddee Pël bu rafet. moo la tuddee Pël bu rafet maa ko tuddee Pël bu rafet. <laughs> fan nga dëkk. maa ngi Cambérène de waaye Gandiol laa cosaanoo. ah Gandiol Cambérène de lay dimbali xam ah. moom mi li ne ci man. maa ko yekk ci moom. li mag ñi yekkan laa yekk ci moom. Hmm. ña fay dem amu ci kenn ku ma dégg ku ma déggagul nga ne ma Pël bu rafet jox na ma nangam aajo ba aman fajowul fajuwul déggaguma ko kon naa ko indi waaw bi ngi ni bu li nekk ci moom yàq naa ko ci moom ku dem ci moom wax naa leen man nga fay fekk jox naa ko lu bari ndax fi ne man jànguma alxuraan hmm. alxuraan tous laa ci laa ci yemale hmm. waaye fi ne ne xul wallaahu ahad allahu samad lam yalit walam yulad walam yàkkul loo ku fu naat moom xam na ko hmm. samad ga laay jël def ci lu ma neex ci samat gi fa laay yem <laughs> waaw yokk ca la ma yokk ci sama suufu samad ga di ca def moo xam ne li may wax nii <laughs> Cheikh ah. Cheikh ah. yëf yaa ngi mag ñi la fa nekkan jugu fi benn baat benn baat boo xam ne que <laughs> lam ya kadd lam ya kadd doo àgg ca yaraaxaaga ñu ne ah. kii ñoom maa lan lay ci xam-xam Baye yaa moor ñëw leen ak kii damay ñëw lam ya kadd nga yem foofu rek loolu lan lay dox ci xam-xam nga yem foofu maanaam fii ah, alxuraan léeg-léeg nga gis ko jàng alxuraan ba wàcc te du ko xam hmm. ndax du ko dégg ndax boo xoolee tey mag ñi dañ ne léegi téeméer euh, alxuraan téeméeri saar la ak fukk ak ñeent. 114 saar. soo ñëwee 114 saar yooyu mag ñi ni boo jàngee benn faatiya bu sell yor njàpp wax astafurla jàng xul wallaahu ñetti yoon wàcc nga kaamil ñu ni benn baat la fa muy lam yel jëlal lam 30. jëlaat lam 30 muy ñaari lam 60 mim 40 nga jël yaa ak 10 yaa 10 del 4 muy 114 saal seekare baa ngi foofu ci la gaa yi ñoox li ñu moo tax fi ne boo jullee ba pare bind samat ca kanam bind sa tur ci biir mucc nga yow mucc nga ka ngay taseel mucc nga kala sopp kala bañ nag sama yoon wax damay wax ne bu kenn bañ kenn bu kenn def kenn dara ndax gaa yaa ngi ñëw tey am na sunguf boo xamee ni nii ñu ngi koy liggéey ci nagu dëj maanaam sébbirtu nagu dëj bëgg naa ñëpp jariñu ci surtout ku ami noonu. boo amee mbaam. sébrit nga booleeg moom tàggum tan nga booleeg moom am na la ca des nag loo xam ne nii dama koy rax waa ay code la yoo xam ne dama ko rax bopp la xam naa ne boobu joxaguma ko boobu boo ko defee nga nuggal ko ndox mi dugal say loxo raxas sa kanam boo ko joxee gune yi ñuy lore mm. fi na gune yi bari na xam-xam boo xam ne ndax man mi nit dina ma saaga mm. nit dina ma xeex ci place li may wax ni sama rakk nga may dégg dugal na ma ci place ñu may xeex mhm. waaye ña ma doon xeex ñëpp maay seen kilifa fi ne maay chef fi ne maay taxaw nii di dox sol sama tëni di dox ne li ma lay wax nii boo ñoo li may wax gaa yaa di ma seetal de damay dox ci tëni nii di gaa yi gaa yi dugg nii te koo xam ne bi muy dugg ni day raam def nii nga sa ñaari loxo di di raam di yokk ko rek xamoo li ngay def ñu lay xeex ci biir place bi moo tax fi ma jëm nii man naa fa de man du ma ànd ak ragal du ma toggoo fas du ma dox aw ñal xam nga lu may bañ mbëtt bu bëggee gudd fan day tegg aw yoon Cheikh du ma ragal man du ma ragal billahi lu ma la bëgg a sas dafa am lu ma bëgg a sas mën nga ko assuré waaw comme président président bi falu léegi nii waaw comme deseeroon dese naa dëppoog ni nit ñi bëggee woon loolu nga not ko ba may nit ñi jàmm ma ngi nañ koo def gis nga kii mbaaleen la dëkk kii mbaaleen la dëkk bàyyi may xalifa ba. waaw moom mii sëñ Mor nee na ma ku ma ku ñëw fii bàyyi ma ko wax sëñ Alioune Kane ku tibb suuf jox la sa aajo faju damay wax ne ma sëñ Dakar rek yaa ma jaaxal soo ñëwee ku ne ku ne ci di nga di nga roofaloo ak moom yow rek laay gis amoo sens interdit dégg nga ah li may wax man ngeen koo seede yéen ñii waaye dama lay wax ni la. maanaam dafa am lu am. maanaam mu ni. gan gu bees gi ci Italie. waa gan gu bees googu. dama lay wax man mag laa wax. sandal mbooro ji ñu ngi may dégg mbooro. am na sandal bu fa nekkantal la jëlee fa. moo jàpp sama rakk man. Mm-hmm. mu téléphone ma télé ma dem ma dem xaw ma ko xaw ma gendarme bi de commandant bi man xaw ma ko. ma dem présidence téléphoné présidence. Mm-hmm. ñu téléphoné ma foofu pour ñaanal ma mu lànk ma woo ba timisi waa ji jot waa ji ne ma den ko bàyyi ndax sama maa ngi ñoo doon mm-hmm. ma wax ma ma woowaat ma ma ne ko xam ma bëgg a xam mu ne ma dina bàyyi wala du bàyyi loolu laa bëgg a xam mu ma nee mu ne ma dina bàyyi ma ne ko dina bàyyi wala du ak bu ko bàyyi bu ko bu ko bàyyiwul fu ko jëmee mu ne ma tribunalu Tivaouane la ko jëmee ndax Thiès ak Tivaouane la ko jëm moom a dem mu ne ma Tivaouane la ko jëm ma ne ko kon baax na jërëjëf saw jaan wàcc na maa ngi dem ba ma demee sama rak fii ba ma amaa may ñëw fii woo nañ ma téléphone secrétaire procureur ba ma woo jox ma téléphone ma wax ak ñoom ma ne ko jox ma turi gaay yi nga nekkal te boobu dañoo ñoom dañoo jënd ñu jaay leen dafa leen facture waa ji leen jaay nekkate moomul ñu jàpp ko jàppaale leen ma ne ko jox ma seen i tur mu jox ma seen i tur ma ne leen keroog ba ma ñëwee tribunal alaaji Paati mi laa fa fekk mu taxee ma ne ko alaaji Paati dem du ma fi taxaw wax na maa xale yi dees na leen bàyyi ñoom la xaar bu ñu ñëwee ñu libéré leen ñu dem ba ma fa jugee nag ma ne kii su ma ko bàyyee mbooro man la ma mag ña genn alaaji Paar yi mi xam na ko góor ga damaa jox ba ma fees dell mooy sëtu mu am alfa cama dëkk ci tàngoor gi góor ga amoon na téeméeri at su ma ñëwee mu ne man sëñ Dakaaru ngi fi loo soxla mi ngi fi ku ma tooñ ma duma la waaje ba ma jox xam nga la ma góor ga jox 313 ayatul kursi yu Fatiha astaghfirullah suranta kores mu ne ma yéenee ko ko jëlal lim bu mag ba tuddal turam mu jóg débaatu fa fukki fan hmm. Cheikh fi ma jëm ñi ma naa fa dañ ko dax ma ragal dañu ko faa jëlee hmm. mu dem te ñi may wax ni waa Mbooraang may dégg Mboora ku fa xamante ne sareet ñi ma wala woon ñi ma woon a dox sareet ci kaw télé bi ñi ma woon yori rasta ci kaw ci ci kii bi yàpp ba fa yoroon rasta dañ ko daggaloo rasta kon daal seen ganu Italie gi jaaxal maa gën bari bëri noonu nag ma wax la ko waaye ragalu ma benn noon fi na ne téeméeri noonu nekk fi man Dakar ma nekk fi ñi ma naan wédde ganu Italie wax la moom ci Italie dama ne maa ngi euh, ni ñu koy waxeetee maa ngi président président bu bees bi boo ko tuddee la nga bëgg ah. damu lay nuru ah. da ngay bàyyi ñu fecc ko feccum biir néeg ndax feccum biir néeg mooy dangay toog ci da ngay toog yóbbante boo yóbbantee nag hmm. toog ca dëkk ba nga ne xamaa dëkk bu Musa mooy yàlla loo fa ñaan yàlla mu nangu ko hmm. te Cheikh man réew ma xam nañ ma de foofu foofu wàcc ñu teral la boo ma tuddee man hmm. maa ngi ñëw ànd ak waa yëpp kay ñu dem léegi nag yow ñëwal tegtal boo ñëwee foofa foofu la yëf yi gën a neex waaye li ma lay wax italien soxoruñu waaw léeg-léeg nga dégg ci mbubb nga dégg ñu naan président bi kii bu yoree réew mi kii nangam nangam am na ku ko gën a bon bosi hmm. bosi boo demee fi ne gémmañ gaa nga ni nii moo gën a bon kii hmm. léegi yu ne fekk na ko seex dama leen dem wàcc naa bu ma wàccee euh, commandant ba moo ma woo daaw bi ma wàccee mun ma sëñ Dakar demen nga yow Sénégal dem naa senegal munu ma ñëw nga munu ma xam naa ni ñëw nga munu ma waaw munu ma waaye nag damay yónnee gendarme yi ci yow waaw ma ne ko baax na mu yónnee gendarme ji ni ma kayit la lay indil xam nga Cheikh maa fi gën a dëng maa fi gars yi boo leen laajee maa dàq na jaay te gën koo ñime daanaa teg njëgaru dégg nga moom un million ci suuf daanaa ko teg bu gars yi ñëwee du ma jóg te du daw de déggoo ma Cheikh Cheikh ma du ragal ki may ragal mooy kii rek borom mbaar mi li ma gëm na jaf ko man laa gëm mooy kii lu ma ko mën a defal ci lu baax daa koy def su ma ko deful pertinent maanaam kii sama doole ji ma am a li ma am nii maanaam gis kii di sonn te mënu ma koo dimbali maanaam faatoo ma ko gën gis ku feebar moo ma war koo faj mënu koo faj wala dégg nga maam téeméer di ko faj mu ne sans pause bii ma di ko lekk di ko xool dee ma ko gënal sans waa kër yi bañ a lekk bañ a naan ma faj kii moo ma ko gënal loolu laay dund moo tax régalu ma dara Cheikh yow nag sama waxi démb mooy sama waxi tey du ma fas du dox ci aw ñal ku ma soxla na ñëw ci yow wax ak yow waxal ku la soxla ñëwal ci yow bu liñ naan menaceur yaa sama menaceur loolu jeex na loolu jeex na Tektal tii rek fi laay waxee ku bëgg a wax ak man na wax ak yow maa ngi sant ñëpp nag di ñaanal réew mi gërëm nga pël bu rafet di pël bu rafet ngi gërëm naa ko gërëm nga sëñ Mor Kane gërëm naa sëñ Mor Kane sëñ Masila sëñ Masila gërëm waa groupe bi kii nag sama xarit la mbooloo kaay Mor Gueye ngi nii Mor ñëwal kii sama bu ne boo boo gisee sama xarit la hmm. xaritu xol la la ñaa kuli yàgg naag jaalo hmm. kii dañoo ànd hmm. mu for ab télé ab téléphone kii man na ko seede moom ci xarit la ñëwal eh, imaam ñëwal uh-huh. kii mbaayam moo ñu moo ñu tudd kon li may wax nii am na seede xam na lii may wax kii mu for téléphone uh-huh. ba téléphone yi sa li jar cinquante mille ak mu ñëw ci man woo ma téléphone man la wóolu ni ma sëñ Dakar dama am for téléphone ma ne ko ana téléphone mu ne maa ngi nii mu ne ma léegi ma ne ko loo ci soxla da ngay soxla quarante mille cinquante mille mu ne ma déet xam nga yitte ju ma am fexe ba jox ko borom ma ne ko léegi kon da ngay ñëw boo ñëwee mu ñëw ma jël téléphone di woo ci numéro yi ba jot borom téléphone ma nga dëkk yoof borom bi téléphone ni ma kii na ma ko indil ma ne ko li ma la doon wax a ngi est-ce que xam li muy jar mu ma xam naa ko kay ma ne ko est-ce am quarante mille léegi fi nga mu ne ma waaw waaye juróom fukk nekkul sans poche waaye yitte ji maam mooy dem yóbbul téléphone ba yóbbul téléphone borom ba. ci jàng leen ci action bi waaw. ma jox ko paas mu dem yóbbu fexe ba dem ca kooka di téléphone di téléphone ba yëkkati téléphone jox ko moo ngi nii as gor la ngi nii. sans waay la. waaye moom wax mu ne ko jëf la gën a bari soo defee alaaji kii bàyyam moo ma tudd waaye man du ma ragal ñoom xam nañ ko de maa gën a bari noon nag fi ne ñi ma bañ bari na waaye ragal ma ma. Ndakaaru ko baax la waaw ndax ñun wax dëgg yàlla ah ñoo dëkkandoo fële ci jàmbaalo wax dëgg yàlla sunu wëllëre la yàgg na lool ku am kóllëre la ku nangoo sonn la ku baax ci ak njabootam la ku bëgg ay mbokkamit la ah man mii nag doon naa koo xamante ne nii jamono yi ma toll damaa xong waaye dama liir ndax li ko dalee bàqara ba naa si aaye boo mën naa ko firi mën naa wax la ko tax a wàcc naa fiq jàng naa naxu jàng naa juxraafi xammee naa xurufu samsiya xammee naa xurufu xamariya xammee naa fiil ak faa'il ak maf'ul jàng naa jaar ak majruur jàng naa fiilu amrin jàng naa fiilu maadin jàng naa fiilu mudaari in kon du ma ne kenn yàlla nuyu na la si jógewu ma fa ndax man dox naas lëf jàng naas lëf waaw ba pare for naas lëf ndax maa yor saab dépasse te nekkuma ci groupement di lépp nekkuma ci procédé lépp yor na kenn fukki dërëm te maa ngi dund sama juróom fukki at ak juróom kon man saa saa wax li alquran di wax wa qalilun min ibadiya shakur kon man ki sakkoor yi laa bokk no xali loolu lu muy tikki alxuraan nee na wax xalilun nee na ko ñu am na ñu néew min ibadee ci sama jaam yi a sakoor ñoom yax sakoor nee na saakir moo ci bari lan mooy saakir nee na da ngay reeree ginaar walaw yàpp nee na fanaanoo sa jonga ma am troisième étage gaare particulier trent million naan sa boisson geex na la alhamdulilah déedéet nee na kooku saakir la su ëllëgee bu xiifee wala amul jonga wala amul kër gu mu dëkk léegi lim sàcc di léegi ni xaj yi def def ko sàcc kooku mooy saakir Chakour nag moo jafe nee na ñu néew ñoo ko am waaw léegi nag moor mi moom moom ku baax la ndax hadis ba rek la yonent bi wax la ci la nekk i'mal li dunyaaka ka annaka ta'izu abadan wa amal lil axirati ka annaka tamutu xadan nee na da ngay liggéey ci àdduna ba mel du doo fi jóg ngay jaamu yàlla ba mel suba ngay dee waaw nee na nag fa saari'u turan ila ta'allumi wa jaahidu nafsa fi tafahumi nee na fa saari'u daw leen ñu ni ko fu nu jëm mu ni ko turan yéen ñëpp ila ta'allumi jëm ki sàkku xam-xam mu ne ko su ngeen paree fu ngeen jëm wa jaahidu na ngeen di jihaad an na fa sa seen bakkan yi fi tabaxoo mi ci fexee dégg waaw kon loolu ci la moor mi nekk fonk nag njabootam nangu naa sonn am naa ñëpp jàmm ñun daal tukki bi moo ñu xaw a sorele ba lu nu ndax mi ngi wax ñu ngi dégg waaye nun daal doonunu gan goo xamante ne nii kii xaritub takkandeer boo xàccee mu xàcci la la boo daanoo suuf jiitu la ci suuf ñun nitu démb gën a aman moom la am tey man nag tong naa koo xamante ne man milliard jënd ma million jënd ma soo amee un boo ma yëgul ma romb la fii ak diwén bu nu gisee ka dëkk Jambaloo ka dëkk Fall Sane ka dëkk Ndiop kum ci nekk fii nu taxaw fii ak diwén bu nu gisee bu nu gisee yaa ma wër la lépp du la ñaan du la neexal du ma fen gisee wetit nag kon kii li ma koy wax lépp dëgg la su nekkul woon ci moom fii laa koy romb gàmmu teewaan ba des ñi ñibbi du ma ko faale dëggoom ak jomam moo tax ma andi fii man waaw kon yal na ko yàlla fay. maanaam kii bàyyam boo nee dëkk bi ma juddoo maam Ibrahima gi sanc gën daal dem jëli bàyyam ndax alxuraan dégg nga ko wane na ko maanaam démb la ba maamam daan def baayam ñoom di ko def ku fa tudd ku fa ña sant gay ñoo leen tudd mooy ñu sant gay moor mii mooy mi may ni maamam moo sanc dëkk ba moo daggal sunu baay ba tey luñ fa am yàlla ñoom man nañ leen ko sante man na leen koo gërëme lam maamam yoroon maam Ibrahima Gueye sama baay doon taawam mu taawloo maanaam sama baay mu defan sama baay taaw maa ngi daawoon def doom jël doom yi nu jur def leen ci seen ginnaaw la maam Ibrahima ko joxoon sama bii ku sant jang laa wax ñi sant jang maa ngi koy wax ca kaw yóbbul lu ci waay bëgg ci man ngay ñëw soo ñëwul ci man doo ko am barke Serigne Babacar Sy ma ma yaakaar bu nor bu amul lu ma fekk bu déwén bu ma fekk fii tey may taw bu ngeen aar déwén na bu ngeen ma gisee ma taxaw fii na ngeen xam ne sëñ Ndakaaru mi la mu leen waxan dëgg la waaw jërëjëf Cheikh maa ngi lay sant di la gërëm waaw loolu moom maa ko wax di la ñaanal di ñaanal euh, Tektal TV tey it maa la wax fii télé bi ca kaw ca kanam maa la ko ndax xam nga Cheikh da ngay dimbali ay gor yaa ngi dimbali ay gor Cheikh yaa ngi génne kenn koo xam ne tànk bi day métti feebar kooku fayu la feebar fayu la mu jaaxale ci feebaram nga yëkkate pourtant am na ku koy faj fi ne léeg-léeg nga dégg sax nguna buy sawlal wala mag muy sawlal léegi sëñ gaay mi mën na ko dimbali waaye munul joti ci télé bi wala mënut a joti ci yow yow nga ubbi sa téléphone tey bu la waxee ne nangam léegi nga woo ko ne ko ah, nee na ma defal nangam te saw saw lal bi euh, ginaar yi ana paati alaaji paati mi maamam da ko daan faj jambaala moo ko fa daan faj moo ko fa daan faj fu mu ko daan faje si ginaar day ginaar yu yu yu yi la ko daan faje ginaari yi ordinaire yi moom la ko daan faj wala ginaaru seq goo xam ne ñaari tànk yi ngay jël ni yéy ko ca lañ ko daan faj feebaru góor bii nga xamee ne bari na ci gune yi gi ki ma mënut a faj kenn dong la ci góor mënu koo faj déedéet ma kii ko judduwaale judduwaale sax dañ koy waxaaye man nañ koo faj boo déggee dañ la naa judduwaale rek dañuy dem ba gëmloo ko kooku moom dutul day day sedd far sedd ba far continuer ndax gëm na ni mun a faj feebar bu dul am bu dul mënut a faj amul alaaji Maali wax na ko onze bisimilahi wal masaani waaye tikus maa soof ci lixlaas itam di faasama tawhiid yi maanaam ay tur kuseeg fala xeeg naas lu mu mënut a saafara dara du ko mën a saafara kon feebar bu dul saafara bu dul ko doon saafara yonente ba koy wax ni saafara biiru saafara yëpp ay xam nga mënut a saafara ki jël dafa jël abay jadda bi aba Jadda bi da koo jël bind Abba Jadda bi jël turu soxnaam bind ko juróom benn yoon raxas ci awraam téeg séeg soxnaam góor gu ko tëdd ak faatu ki nga xam ne daa dem jël gara garab garab garab yii yàlla wan ci garab mu jël ca genn garab def yaramu neen def yaramu neen ko gas reen bi digg bëccëg kenn gisu ko mu takk ko séeg jabaram ku tëdd ak faatu mag ñi jël ci alxuraan ji alxuraan ji damay wax ne lu yàq gaa yi yor alxuraan jee ko yàq déggoo ma dëddale gaa yee koy def dañuy jël ci yoo xamee ne yu saw ci gën a wàcc alxuraan ñu koy dëddali ko def ci nan toj ko sile bu yoon ñaar ñoon du ci ñu laale pourtant noon la ma mën a maye ki am garab dem ci gang def ca lam cay def boole koog da nga nangam ak nangam ja def ko nam koy def bu ko defee ñaar ñoon dutuñu laale ndax ay cabinet foo ko gis da ngay téye bopp baa du mooyu déggoo ma de garabu góor nag daa yomb hmm. mag ñi dañ daa def ñu yor course mag ñi yor course daanan def fatiya astaghfirullah def yaa qayu yaa qayuumu ca ayatul kursi yu hmm. ñu def ci uh, uh, cent soixante quatorze waaw quatorze soixante quatorze yi ngay njëkke moom la mag yi ne muru ngurum ngurum di ko def suba ngoon du ñu tële di am juróom-ñetti fukki at daami doom hmm. moom la ñuy def ki ko mënul nag jàngul alxuraan yàlla wutal ko a weneen yoon wan yoon la hmm. waaye gerte naflaay gaa ngi fi waaye buy baa ngi fi waaye kàdd maa ngi fi waaye yii reng fi man lépp ngool garab gi ne wax ngool tam bari ci nawet bi boo demee léegi bari na lool nga jël ko xooj ak reenu caxat nga boole ko caxat mag ñi dañ ko daan jël di jël euh, xob yi ak kii bi di ko def di ko togg cere borom kër gi du tële mukk gune duñ tële waaye léegi xam nga ñii tële mooy nga fekk alali jàmbur nga laal ko fekk def na ci boo tëlee kenn du la man a faj man man man mënu ma laa faj boobu laa mënut a faj mais ku ko judduwaale mën nga ko faj ku ko judduwaale boo ñëwee ma jéem la mag ñi defoon jël defal bu ma kii nga dem sa yoon incha allah kon jërëjëf gërëm nañ ñëpp ñu doon seetaan Tektal TV euh, spécial euh, sëñ Ndakaaru neex na gërëm nañ ñëpp gërëm nañ tamit waa Tivaouane Marietou Thiandoum soxna sëñ Bas Diop gërëm nañ Awa Diop soxna sëñ Moustapha Fadam Moustapha Diop ak Fatima Tar Diop ak euh, Khadimor sëñ Sakkal Mas Diop ak Kër Baye Mbaye gi Baye gërëm nañ ñëpp ah ak tamit euh, Cheikh Sarr xaritu dara Fat Jaxate ñëpp ñi nga xam ñu ngi ci champ de course bi nijaay Seexu Jaxate soxna Fat Jaxate bàyyiwun kenn xewal dikk loraa ngi dak sëñ Dakaru spécial yàlla yàlla def ñu teewaat fu lu bari ak wér wér la sama waa nuñ koy waxee diaspora bi maa ngi leen sant waaw am na ñoo xam ne comme ça staff bi Ousmane Diouf gis naa ko fi indil na ma xaalis bu bari ak soxnaam ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar di siyaar xaadim jonn bëgg Bamba Touba ak Moussa Cissé Gambien ndax ma naa soppe ba Gambie dañ may woo bëgg maa gis ak it Ablaye Mballo Casamance mm. waaye di siyaar seex di la ñaanal bu baax di gërëm ñëpp incha allah jërëjëf kon xam naa di ci dolli tuuti lu barewul rek si programme sëñ Ndakaaru mm. sëñ Ndakaaru yàlla na nga fi yàgg ti wér ak nun ñëpp nag mm. sëñ Ndakaaru nit ku baax la sëñ Ndakaaru ku yaatu la. sëñ Ndakaaru ku jullite la. macha allah sëñ Ndakaaru àndul ak cuune. àndul ak it ku xamul dara. ñi mu àndal ñëpp ay sufiyanke lañ. tubarkalla macha allah. sëñ Ndakaaru li mu yor tëyu ko. daf koy joxe. sëñ Ndakaaru faalewul dërëm faalewul million. sëñ Ndakaaru li muy def moo di maanaam dimbali jaami yàlla yi. si la nekk. guddi bëccëg man mii di wax yow ni kii sama doom noo nga jóge fii ba Gànjool ma dugg si groupe bi bu doom bu ne sa àll ba moo ma dugal si groupe waaye bi ma si duggee ba léegi wax dëgg yàlla macha allah du may déglu ay vocal waaye li may déglu yëpp njëriñ rek laa si gis am na ñu nga xam ne ñoo ngi joxe ay xam-xam yu nga xam ne joxe wuñ ko sax duñu leen laal seen der toog ñu di leen fekk ñuy joxe ay di laaj ay millions mm. wala ay junni sëñ Ndakaaru deful noonu moo ne koo fi indi bari nañu ngaa xam bu ñu si suñ Dakar la ñoo jàngi xam-xam te moom soxlawul lenn kon nag noo ngi ñaan yàlla yàlla na fi yàlla yàggal ak ñi mu àndal ñëpp nag mboolem ku taxaw si bisam bii tey jii yal na yàlla faj sa aaju noo ngi lay sant bu baax yow itam sëñ bi ah, miinante wunu mm-hmm. waaye ah, bët netta la ku am dal nga macha gëm nga sa liggéey ah yal na yàlla doole la sàmm bu baax a baax a baax noo ngi sant ñëpp daal sëñ ñoom morkan Baye Fall Sylla pël bu rafet ak ñëpp daal noo ngi leen sant di leen gërëm am na sama xarit bu ma fi gisul nag bu ñu wax euh, ki nu mu tuddati euh, waay ki mu doon wax léegi ki mu wax léegi seex bi seex bi déedéet fàtte moom moom moom lay jox lu ko lu ka jaaxal moom nga koy wax mu wax ko. ah moom la waaw sëñ Paate. Hmm. sëñ Paate Ndoye. Hmm. noo ngi kiy gërëm bu baax di ka sant bu baax man baa Babacar Fédior laa tudd. waaye nag maa ngi leen jox sama bopp bis na ko tey. gëm leen sopp leen. Hmm. di leen ñaanal yàlla it maa ngi dëkk Gandiol. yal na yàlla dolli jàmm noo ngi sant yàlla tubaarakalla macha allah. ngeen baal ñu yal na yàlla boole jéggal. jërëjëf gërëm nañ équipe technique bi ñu mam Mame Thierno Badiane Modou Diallo xaar yàlla Euh, docteur Wadd ma Massamba Diop soxna ma Diop ci réalisation sëñ fallu Mbacke Diop soxna Seynab Diop maam Ndiakhate euh, Mba Mbaxe euh, awa ñëpp gërëm nañu xewal dikk loraange dakk Tektal TV page Facebook Tektal TV l'officiel YouTube bi pa Tektal TV TikTok bi Cheikh Talib Instagram bi Cheikh Talib wala Tektal TV xewal dikk loraange dakk jaajëf.